بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فهذه ورقة عنوانها المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع وعناصرها كالتالي أولا تعريف المعاصي وذكر أقسامها ثانيا أسباب الوقوع في المعاصي ثالثا آثار المعاصي على الفرد رابعا آثار المعاصي على المجتمع خامسا وأخيرا asbaabu takfiri dunubi wal maasi mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko. di jiital ak cant sant sunu borom tabaraka wa taala moom mi nu jàpp ndalal ba. sunu dajeeg mbokk yi ci jàkka ji niñ ko amee woon ci yéene mu amale ko noona wax doon naa wax mbokk yi ne leen jàkka ji jullit bu nekk ak joteem ak jàkka ju mën a doon ak jote la goo xam ne amul fu mu war a tàmbalee waaye jàkka ji dafa bokk ci yi nga xam ne sunu joteeg moom jote gu teel la maanaam day dellu ca bis bañ ko doon ubbi loo xam ne nag da ngaa teewoon bis bañ koy ubbi jëkk faa julli àjjuma kon kooko teel ngaa joteeg moom lool di am mbégte ak cant gu ñuy sant sunu borom tabaraka wa taala ci mbokk yi nga xam ne ñoom la fi sunu borom tabaraka wa teg muy sëriñ Mansour Samb ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal di yëngatu ci wàllu liggéey bi ak ñi mu tudd muy ay kilifa yoo xam ne ñoo jàpp jàkka ji di ko doxal loolu dañ ci am mbégte ndax suñ sañoon fépp fu jàkk nekk yoo xam ne ay mbokki jullit a nga fay yëngatu day doon jàkka joo xam ne lañu ñu fay def day fekk mu dëppoo ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala ngërëmul yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ci biir loolu mu fekk mu ànd ak jàppalente goo xam ne diggante mag ña lay doon ak ndaw ña fa nekk ndax ñooñu suñ àndandoo rek yiw bari mag ñi ñooy faral di am ma ñooy faral di am ak dal waaye ndaw ñi ñooy faral di yor nag activité ak liggéey su ko defee ñoom suñ boolee seen xel ak seen xalaat ak seen expérience ñoom mag ña ñi boole ko ak man-manu ndaw ñi yiwu bari day daal di judd kon loolu lu mat a sant sunu borom tabaraka wa la mu bokk ci jàkk yi nga xam ne ndaw ñaa ngi fi liggéey te ki nga xam ne ci ñi jiite liggéey bi la bokk mu wax ne amuñu fi benn jafe-jafe alhamdulilahi rabbil alamin eh, tomb bi nga xam ne moo waral jotaayub tey bi dafa mel ne dafa am ak jote ak tomb bi waraloon jotaayub daaw ba biñ fi toogee daaw dañ doon wax ci xol bu mucc nit ka nag su góor góorloo ba ab xolam mucc te jàpp nañ ne alhamdulilahi mbokki jullit yi fi teew ñu ci bari wala ñëpp sax noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala fekk seeni xol mucc na su muccee ba àggal na ginnaaw rawagut daa am yeneen i gàllankoor yu nekk ci kanamam yoo xam ne ba ca yées ci moom mooy jooyoog ndigalul sunu borom tabaraka wa taala maanaam mooy ndigalul yàlla loola la ko iblis di fexeele su demee ba mucc ci ràggu xol taxagul mu jàpp ne raw na des na bëre bu des ci kanamam mooy nan lay def ba noon du ko delloowaat ba mu tàbbi ci yi nga xam ne moo koy yàqal xolam bu mucc boobu yi kon waxtaanu tey bi mu nga jëm ci mooy ndigalul sunu borom tabaraka wa taala ak jeexit muy impact yi nga xam ne daf koo am ci nit ki am ko itam ci société bi ñu tënk ko ci juróomi tomb fas ko yéene jéem a gàttal suñ kam kàttan ndax mu mën a yem ci waxtu wi ba ci njëkk mooy jéem a définir wala xamle lan lañ jublu ci almaasi ak ay xaajam itam ñu waxaale ko ci tomb boobu ba ca tegu di sabab yi nga xam ne mooy tax nit ki tàbbi ci mooy yàlla ñetteel bi jeexit yi nga xam ne moom la am ci nit ki moom mooy yàlla kenn ku nekk li ñuy wax individu maanaam jeexit yi am ci moom al ñeenteel ba doon jeexit yi nga xam ne moom la mooy yàlla di def ci ab société aw askan wala aw xeet bu ñu ne société gën naa yaatu société ñi nañ koy déggee juróomeel ba sabab yi nga xam ne ca la nit ke mën a dellu ba ay bàkkaaram raxasu wala sabab yi raxas ay bàkkaar su fekkee ni nit ki taq na ci ay bàkkaar kon juróomi tomb yooyu defe naa ne suñ ko waxee li ëpp ci lu aju ci tomb bi incha allah dana nekk ci xel yi di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu jàpp ndalal cër yi lu luñ fi dégg ci lu am njariñ ñu jëfe ko te buñ ko jëfee mu sell te bu sellee it moom da koy nangu te bu ko nangoo mu ful ko te boroom sax ca loola ba keroog mi dajeeg boroomam tabaraka wa taala kon tomb bu jëkk bi rek duñ ci taxaw lu bari ndax définir ko moom weesu wut li boroom xam-xam yi wax rek dañoo wax ne al isyaanu xilaafu taa maanaam mooy daal mooy ñàkk a topp suñu waxee ne jaam bi dafa mooy boroomam mooy juuyoo naag ndigalam ndigalul suñu borom tabaraka wa taala nag buñ ko waxee ñaari xaaj la am na ndigal bu la naan defal ak ndigal bu lay wax bàyyil kon képp koo xam ne ndigalul sharia ñëw na loo xam ne def leen nangam la wax mu lànk ne moom du ko def ak lay wu mën a joxe nag sulul ngànt weneen lay wu mën a joxe kooku la ñuy tudde ku moy maanaam dafa lànk ndigal bi su nee bu leen def mu lànk ne man damay def daal di def ak lay wu mën a joxe te fekk ngànt waralu ko kooku la ñuy tudde ku moy kooku lañuy ñuy tudde aasin su ko defee la muy def maasiya la tudd mooy benn bi su dee yu bari daal di soppi ku nekk ay maasi ay mooy yàlla yoo xam ne yu bari lay doon kon mooy yàlla yooyu mën naa jëm ci ay jëf yoo xam ne dañ la koy wax loo nga lànk bañ koo wax wala ñu ne la bu ko wax nga lànk dem wax ko kon mën naa aju ci wax waaye mën naa aju ci pas-pas luñ ne la fasal lii nga lànk bàyyi ko fa wala luñ ne la bul fas lii nga dem fas ko kon ndigal ak tere yi dana ñëw ci wax bi dana ñëw ci pas-pas yi waaye dana ñëw ci jëf yu feeñ yi ak yu nëbb yi lépp jëf moo xam bu nëbb la wala bu feeñ sa digganteeg sa borom wala boo xam ne doomu aadama yi mën nañ cee teg bët ñu la defal lii nga lànk bañ koo def wala ñu la bul def lii nga dem def ko loola lépp su àndee moom la ñu tuddee si yi kooku mooy mooy yàlla ci alquranul karim nag ay baat yu baree baree bari da ko koy tuddee am na foo xam ne zan bu lañ koy tuddee zan bu suñ ko doon tekk ci wolof wax rek mooy bàkkaar maanaam bàkkaar kon ci biir mooy yàlla ci la nekk maanaam moo koy waral mooy yàlla mooy waral bakkaar juddu moo tax mu ne fa kullan axasnaa bi zanbi kon sun borom tabaraka wa taala tuddee na ko bakkaar danañ ko tuddee it xatia walla sayia ñoom ñaar ñëpp ni ko wala fa mën a tuddee mooy ñaaw téef rek ñaaw téef euh, bu dee xatia ñëw na ca wax yi ixwatu yusuf ba ñu waxee ne inna kunna xaatiin bu dee sayia it inna alxasanaati yudhibna sayiat ba tey ñëw na ci alquran muy ñaawteef danañ ko tuddee al ismu al ismu moom mooy bàkkaar moom na ci ay yoon ñi koy tuddee alxuub ba tey alxuub mooy ismu ba tey ni ko raaxib al asfahaani di waxe alfusuuqu mooy ak jeng wala ak génn rek menn maanaam mi la yor al kufra wal fusuuqa wal isyaan kon da ko ci ataf foofu maanaam da leen a boole ñoom ñaar tudd ngir fedd li waaye ñoom ñoo bokk luñ doon moo tax arraxibu al asfahaani rahimahullah daf ne fasaqa fulaanun xaraja an xajri sharci la sharia rëddoon ne yemal fii moom génn na frontière booba kooku mooy mooy faasiq ku yemul ca fañ ko yemloo alquran dana ko tudde ba tey alfasaad di ko tuddee it al utuw di ko tuddee it al isr yooyu yëpp benn bu ci nekk boo ko toppee ba ca biir li muy firi mooy la borom bi tabaraka wa taala rëddoon digle ko wala mu tere ko nga lànk def tere ba wala nga bàyyi ndigal la kon loolu moo lay wax ne ci gàttal almaasi yi buñ ko waxee mooy mooy ndigalul sunu borom tabaraka wa taala mooy ndigalul sunu borom tabaraka sunu borom tabaraka wa taala santaane boobu moo xam daa doon ndigalul defal wala ndigalul bàyyil dafa am nag ay xaaj <coughs> xaaj yooyu mooy ñu séddale ko ci kem ay ictibaaraat am na anam yoo xam ne ñetti anam yoo xam ne benn bu ci nekk mën nga cee xool séddale ci mooy yàlla yi ñetti anam yoo xam ne benn bu ci nekk mën nañ koo xool séddale ca mooy yàlla yi anam ba ci jëkk moo di man waqaat fi xaqihi kii mooy yàlla gi kim dal ci kawam kim dal ci kawam kooku ay xaaj la ba ci jëkk mooy mooy yàlla goo xam ne fii fiihi zulmun linnaas yàlla daf koo sant mu lànk ba a def cantaane ba wala mu bàyyiloo ko mu def ko waaye fekk loolu lora nga ci joo xam ne moom ci kaw nit ñi la dal misaalam mooy ku mel ni kuy jël alali doomu aadama yi tooñaa ngi joo xam ne daa aju ci ak jël seeni alal wala àq yoo xam ne da leen koo yoreel mu lànk bañ leen koo jox moo xam àq yooyu àq lu mu mën a doon nag wala xeet yi nga xam ne day nekk ci xol ay kiñaan ay mbañeel ay pexeel xeet yooyu yépp mooy yàlla la goo xam ne dafa aju ci jalgati àqi doomu aadama yi maanaam zulmu naas tooñ doomu aadama yi ci la aju am na boo xam ne kanam la tooñ moom ci boppam te xeetu mooy yàlla yi la bu jógee ci kaw kawam lay dal mel ni kii naan sàngara àdduna ak àllaaxira boppam lay lor ki jóg di njaaloo adduna ak àllaaxira boppam lay lor lu dul nag su fekkee lor jooju dafa jalgati nag àggaale ci loraane yeneen di doomu aadama ndax léeg-léeg kat mu am léeg-léeg nit naan sàngara ba noppi wëlbati ku jalgati àqi nit te fekk sàngara sim naan moo tax mu def ko su boobaa génn na yem ci rek tooñ boppam waaye tooñ na boppam ba noppi tooñaale nit ñi waaye nag loolu du daa iman nit ki mën naa naan sàngaraam dem tëdd nelaw lorut kenn waaye su boobaa nag boppam la tooñ ndax la cay jóge ci lori àdduna ak àllaaxira ci moom lay dellu ñetteel ba mooy maa yajtamiu fiihi l amraani mooy yàlla goo xam ne tooñ nit ñaa nga ca tooñ boppam a nga ca biir comme que nit ña dénkoon seen alal mu mu jël ko loolu doyatul mu dem jënde ko jënde ko sàngara naan ko wala mu dem njaaloo ji ko wala mu dem def ko ci xeetu mooy yàlla kooku tooñ na nit ñi ci jël seen alal waaye tooñ nga jéggi na foofa mooy loraale na boppam mooy dem na jële ko loo jënde ko loo xam ne lu koy lor la moom kon bu fekkee ne ci itibaaru man waqaa man waqaat fiihi almaasiya la kon ñetti xaaj yi danañ ko séddale mu am beneen itibaar maanaam geneen anam goo xam ne mënees na caa jaare ngir séddale euh, mooy yàlla yi ba tey moo di bi naw nawiha maanaam xeetu mooy yàlla gi maanaam mutaallaq mutaallaqu almaasiya li nga xam ne mooy yàlla gi ci kawam la aju loolu léeg-léeg mu nekk maasi fi litiqaad mooy yàlla yoo xam ne ci pas-pas la dellu lu mel ne bokkaale lu mel ne naafiq yooyu yëpp ay mooy yàlla la ndax suñu borom tabaraka wa taala loolu mooy bàkkaar bi gën a rëy ci buñ koy moyee mooy shirk loolu moo tax léeg-léeg mooy yàllaa ko yonentam borom bi tabaraka wa taala koy tudde kéefër bi mu wax ne wa man yasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama xaalidina fiha abada ku mooy yàlla jooju lim ci jublu ku mooy yàllaa ko yonentam lam ci jublu foofu mooy kéefër moo tax maasiya dana ñëw ñu tudde ko kéefër fekk kéefër lañ ci jublu lanu wax ne kéefar la ci tudd mooy lim àggale aaya bi fa inna lahu naara jahannama kooka am na sawara waaye xaalidiina fiha abadan suñ ca duggee du suñu génn ba mukk kon loolu moo tax ñu xam ne kéefar la ndax ku dugg sawara te doobu yéefar moom da nga mas a génnaat kon bi ci jëkk mooy kon mooy yàlla goo xam ne daa aju ci pas-pas am na maasi fi l mooy yàlla yoo xam ne dañoo aju ci jikko dañoo aju ci jikkoy nit yooyu lépp loo xam ne luy yàq jikko la rek loola da cay bokk naan sàngara nga ca biir njaaloo nga ca karta nga ca sàcc alali jaambur yaag lépp loo xam ne ku koy def dañuy wax kii jikkoom yàqu na loolu ci xeeti mooy yàlla yi ci la bokk ñetteel ba moo di maasi fi l ay mooy yàlla yoo xam ne dafa aju ci jaamu yàlla yi kooku ci musiba yu mag yi la bokk ndax loo xam ne kaadaru jaamu yàlla la nit ko jëfandikoo fa ak mooy yàlla kooku musiba la nu muy amee ki bàyyi julli jullil mu lànk ne di julli kooku ci ibaadaat la julli bokk mu bàyyi ko wala bàyyiwul julli waaye daf koy doyadal du ko julli ci waxtoom wala bokkul daal ci programme yu mag ndax programme bu ñëw bu ne rek mën naa dégage julli mu topp ñu jëfandikoo booba ba noppi door koo def kooku mi ngi mooy yàlla ci jaamu yàlla gu mag googu nga xam ne mooy julli wala mu am alalam lànk bañ a joxe asaka kooku mi ngi mooy yàlla mooy yàlla goo xam ne ci ibaadaat yi ci la aju loolu lépp bàyyi lu ñu la def loo lay doon léegi léegi nag mu doon ci def loo def loo xam ne kenn def loo wula ko loolu fa bi daal di feeñe loo xam ne kenn def ko nga ñëw dugal ko ci jaamu yàlla yi tudde ko jaamu yàlla di ko def kooku maasiya la boo xam ne ci ibaadaat yi la aju ndax yaa ngi jaamoo yàlla loo xam ne yàlla waxul ne jaamoo leen na nii moo xam nag biddaa boobu daa aju ci sos loo xam ne lu amut woon ci boppam la nga di ko jaamoo wala da ngaa fekk li amoon nga soppi ko ba di ko defee neneen nu bokkut ak nañ la waxoon loolu lépp boo ko toppee biddaa lay tudd ndax day dem ba soppi sharia lépp loo xam ne boo ko toppee mu soppi sharia bi yàlla tëroon akub yonentam xamal ne loola moom mooy biddaa ñeenteel ba mooy maasi fil muamalaat am na ay mooy yàlla yoo xam ne moom ci jëflente yi la aju comme uqudu riba jëflente ci wàllu riba moo xam sa digganteeg banque la moo xam sa digganteeg nit jëflente ci wàllu ger neexalaate ci loo xam ne waris bu faa def li ñu tudde shahadatu zuur témoin loo xam ne xam nga ne lii dara lu ci dëgg sàcc alali jàmbur loolu lépp ci mu muamalaat ci uqud yi dugg ak muamalaat yi foofu mooy yàlla la goo xam ne daa dugg ci biir jëflante yi kon ci buñ xoolee aw xeetam ak mutaallaqam moom jaamu yàlla yi muy la muy aju ñeenti séddalee ngoog yoo xam ne wala ñeenti xaaja ngoog yoo xam ne benn bu ci nekk eh, xeetu mooy yàlla la muy la aju ca pas-pas ya ak la aju ci jikko ya ak la aju ci jaamu yàlla ya ak la aju ca jëflante ya muy al aqaid wal axlaaq wal ñetteelu seddale bi moo di bi ictibaari izamiha màgg gi màgg moom mooy yàlla danañ ko di séddale ñaari xaaj mooy bakkaar yu mag ak bakkaar yu ndaw ibnul qayim rahimahullah mi ngi wax ne bakkaar yi day dana seddalikoo ñaari xaaj bàkkaar yu mag ak yu ndaw waaye am na ci nit ñi ñoo xam ne dañ ne bakkaar kenn du ko séddale bu mag ak bu ndaw lu tax ñu ne ndax mooy yàlla gu ndaw amul ku xool yàlla ni màggee ak lim la defal lépp yow doomu aadama mu ne la defal nga lànk ne du ma def wala mu ne bul def nga dem def ak loola loo ko xeeb xeeb ñooñu nee nañ loolu bàkkaar bu mag la maanaam wut loolu moo tax Anas ibnu Malik ci xadis bu ne ci saxiixul Buxaari nee na innakum la taamaluuna acmaalan hiya adaqu fi acyunikum min alshacar in kunna nacudduha ala cahdi rasulillahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam min almuubiqaat nee na anasa doon wax radiallahu taala anhu taabicoon yi la doon waxal maanaam ndongoy saxaaba yi mu ne leen yéen day yéen a ngi jëf ay jëf yoo xam ne dafa sew fi yéen maanaam da ngeen ko tuutal dangeen ngeen koo xeet dafa sew ba toll ne ak cinkóor ci yéen maanaam ak kawar mu ne te fekk jëf yooyee nun day ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci muubiqaat yi lañ ko boole woon maanaam jëf yi yées ci jëf yi ci musiba yu mag yi moom lañ ko jàppe woon yéen nag ngeen xeet ko ba defe ne lu tuuti la ñi bàkkaar bu ndaw amut xadis boobu bokk na ci yiñ tegtaloo waaye nag li gën a dëgër moo dina bàkkaar bu ndaw ak bu mag am na waaye faw ñu dégg aw dégg luñ jublu ci bu ndaw ak bu mag lan lañ jublu ci bu ndaw ak bu mag la ci jublu lépp boo ko xoolee ba mu jeex ndax jumhuru ahli sunna ñoom ñoo ne bàkkaar bu ndaw bu mag am na lañ ci jublu mooy bàkkaar yëpp tolloowuñ bàkkaar yëpp tolloowuñ te loolu moom réalité la boo xam ne ku xam bàkkaar yi nañu toll da nga xam ne tolloo wuñ loolu moo tax suñ borom tabaraka wa taala ci alquran alkarim nee na alladina yajtanibuuna kabaira al ismi wal fawaxisha illa lama kon nee na ñam doon tagg wax na ne bokk na ci seen melokaan yu baax ya moo di bakkaar yu mag ya dañ ko fay bàyyi xanaa lu dul li leen di gaar léeg-léeg rek ñu laal bakkaar yu ndaw yi al lamam moo tax al lamam dañoo wax ne mooy sagairu dunubi wa muxaqaratu l amal yi nga xam ne ci bakkaar yu yi gën a ndaw lañ ko boole loolu lañuy ñuy tudde rek lamam loolu kon illa lamam jooju kooku dañ koo exception la boo xam ne dañ ko génne ci bàkkaar yu mag yi ndax kabair al ismi wal fawaxisha illa lamam kooku mooy wane ne dañ ko caa génne mu wane ne kon yu ndaw la ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadisu abi hurayra bi muslim génne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na alsalawatu alxams waljumaatu ila aljuma wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna ida jtunibat alkabair wa fi riwaya ma lam tugsha alkabair yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na julli yi juróom ak julli ajjuma ba keroog ajjuma ji nga julliwaat ajjuma ak woor weeru koor ba weeru koor del siwaat nee na yooyu dañuy far bàkkaar yi doxoon seen diggante su fekkee ne borom bàkkaar yi bàyyi na fa nag bàkkaar yu mag yi moo tax ñuy wax maanaam jëf yooyu mu wax daal dañuy far bàkkaar yu ndaw yi moom même su ko borom tuubul woon waaye bàkkaar bu mag nag dafa am na fu borom bi jaar mu door a far waaye li nu itteel ci xadis bi fii mooy séddale na bàkkaar yi ay bàkkaar yoo xam ne jëf yooyu boo ko jëfee rek yooyu effacé na ko mu des bàkkaar yu mag yi kon moo lay wan ne bàkkaar yu mag am na ak bàkkaar yoo xam ne àgguñu foofa loolu nag la borom xam-xam yi jublu ci séddale bàkkaar yi mu nekk ak yu mag ak yu ndaw moo tax définition bi ëpp solo ci bu ñu wax ci jàngale bàkkaar bu mag mooy bépp bàkkaar boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala tudd na ko moo xam ci alxuraan la wala ci làmmiñu yonentam alayhi salaatu wasalaam tëkkoo ca sawara wala meram wala mu rëbb borom bàkkaar boobee wala mu tëkkoo ko mbugal noonu la ko Abdullah ibnu Abbas waxee radiallahu taala anhuma bépp bakkaar boo xam ne tudd nañ ko tudd ca sawara wala ñu tudd ca merum yàlla wala rëbb yàlla wala yonentam wala ñu tëkku ca borom mbugal xamal ne bakkaar boobu ci bakkaar yu mag yi la bokk kooku mooy alkabair yeneen yu dul yooya nag borom xam-xam yi nee nañ yooyu ñooy yoo xam ne agguñu foofa ginnaaw da ngaa yor nag lu réeréy loo xam ne sawara lañ cay wax ak merum yàlla ak rëbboom ak mbugal am yeneen yoo xam ne xam nañ ne yu baaxut la waaye kenn tënkoowu kenn tuddewu ca lu mel noonu kenn tëkkuwu ca kenn ci lu mel noona moo tax ñu ne yële kon mooy yu mag ya yii ñooy yu ndaw ya waaye jubluwuñ ci mukk ne ndawaay bi liñ ci jublu mooy bu la neexee demal def déedéet ci musiba yi la bokk yi nga xam ne ñoom itam ku ko bàyyiwut mën na laay yóbbee li nga xam ne mooy dal euh, kii nuur ci bàkkaar bu mag bi wala kii jëfe bàkkaar bu mag bi ndax kat al israr ala sagair ki nuur ci bàkkaar yu ndaw yi bàkkaar yu ndaw yi dañu mujj soppi kuy mag ñoom itam loolu kenn ku nekk xam na lu ndaw bu àndeeg lu ndaw àndaat lu ndaw bu yàggee lu mag lay doon moo tax ñu ne inna aljibala min alxasa la taxqiranna saxiratan inna aljibala min alxasa bul xib xeeb mukk lu ndaw montagne yu mag yi ngay séen ay jembaraay yu ndaw yi doon dajaloo la ay ay xeer yu ndaw yi ngay sànni ñoo doon dajaloo ba mu yàgg rek mu doon montagne moo xam ne boo toogee di ko séen bàkkaar bu ndaw kon noonu lay def moom itam wala la ñuy tuddee bu ndaw kon ci biir loolu nga xam ne bàkkaar am na ko ci ñetti ictibaar yooyu ma wax maanaam ñetti séddaliin yooyu ma wax euh, xaaj yooyu bàkkaar am na ko euh, asbaabul wuquu fil maasi yi nga xam ne mooy pousser doomu aadama ji di ko jañ mu jëfe ay bàkkaar nga xam ne nit ki su ko lam ca war a jariñoo mooy wattandi ko yooyu ndax nit ki bu xamee sabab sabab bu ñu ko waxee mooy lu mel ne bunt su newoon sabab bunt bi sabab la ci duxulul masjid bunt bi sabab la ci tuxulul masjid bunt yi ñooy sababi dugg agsi ci biir jàkka ji kon ki bëggut a dugg ci jàkka ji ci bunt bi ki bëgg a dugg ci jàkka ci bunt bi lay jaar kon bépp mbir boo xam ne am na ay sabab nga di bañ a nga bañ a dugg ca loola bañ caa bokk da ngay wattandiku sabab yey tax nga dugg ca ba ca jëkk mooy daaful iman daaful iman maanaam ngëm yàlla bu faible kooku ci dugal nit ci bàkkaar ci la bokk bépp doomu aadama buy dund imaan dana yëg ne dana am jamono yoo xam ne dana yëg ni ngëm yàllaam toll na koo xam ne macha allah waaye léeg-léeg mu dem ba mu yàgg wax dëgg yàlla du kontaan ci boppam dana yëg ne moom mii fan yi dafa rës comme ni yaram bi feebaree léeg-léeg yow sa activité lu ne nga mën ko di xëy di liggéey ba mu yàgg nga xëy sa bopp di metti wala saw yaram jékki-jékki diis noonu yaram wi def imaan day def noonu moom itam ginnaaw yaram bi bu la dalee a wut ay confirmer ay yëf seet looy naan ngir nga mën a sawaraat bopp bi metti bi dal ngëm yàlla ge dafa amam yu meloon noonu nga xam ne saa boo xam ne yëg nga ko rek moom itam da nga war a gaaw dellu ci yooya la ci jiitu mooy jëkk xam sabab soosu lan moo tax sa imaan bi nekk daif ndax daa am loo doon xool te waru koo xool ndax daa am koo àndal waroon a ànd ak moom ndax daa am loo def loo xam ne waroo ko woon a def wëlbati ko delluwaat ci jàng alquranul karim ak settantal ko ak jàng taxawaay yi ñu baax ñi ci lislaam seen siira tàmbalee ko ci yonent ya ak ñi leen topp yooyu ci yi dundalaat imaan di ko dekkalaat ci la bokk waaye li ma itteel daal mooy nga xam ne moom ngëm yàlla du mat sëkk nekk ci xolu nit ki mu teewlu ko bàyyi ko xel ci jamono yooyu mu nekk di nuur ci biir ay mooy yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu wér daf ne laa yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min kii njaaloo jamono yi nga xamee ne mi ngi njaaloo nee na munta ànd ak mu nekk nekk ku gëm yàlla ngëm gu mat maanaam ngëmam absenté na ab diggante pour mu mën a def loolu mu ne kii naan sàngara noonu ki nga xam ne day sàcc noonu la jamono yëpp dikkee di fab alali jàmbur mu wóor ko ni lii lu xaraam la te mën na koo yóbbu sa wara su fekkoon ne mi ngi teewlu loolu ngëm yàlla nga teew fa na mu fa war a teewe kon loola du ca tab bi mukk kon kooku mooy sabab bu njëkk bi ñaareel ba moo di fitnatu nisaa suñ ne fitnay jigéen ñi ca côté ba itam jigéen ñi góor ñi seen fitna lañ waaye nag boo leen comparé ñoom ñaar ni góor di fitna woo ci jigéen ba tàbbi ci mooy yàlla ànd ak ne képp ku mooy yàlla ci jigéen rek moom moyaale nga ko yàlla waaye li wér mooy li ci ëpp góor ga mooy fitna wu sàkku jigéen ji loola am waaye néew na ni jigéen ji mooy fitna wu ñëw sàkku si ko loolu borom bi tabaraka wa taala moo ko bind ci fitra yi maanaam nam binde nit ki góor gi moo gën a am ak dëj yërle aku dijji bopp ba lu lépp lu nekk ci xelam mën naa daal di jóg dem wuti ko jigéen ji mën na koo not lool ci wàllu fitna waaye kersaam akug wattandikoom akug ragalam mën naa tax ba loolu dox digganteem ak mu jóg di ko sàkku ji ci góor waxeesul ne nag loolu amut waaye bu ñuy xool li gën a bari dañu gis ni ci góor ñi la ëpp moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yu mel nii bu koy wax ci xadis fitna yi jigéen la koy tuddee ànd ak ne góor dañuy fitna wu fitna waale jigéen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa taraktu baadi fitnatan adarra ala rijaali min annisa muttafaqun alayhi xadis bu wér ci buxaari ak muslim nee na man day bàyyiwuma fi génnuma àdduna bàyyi feek sama xeet wi fitna ju ëpp lor fitna ji dal góor te fekk ci jigéen la ko jóge kon loola woor na ne du lu woyof te it kenn ku nekk da nga caa teg sa bët moo tax Euh, boroom xam-xam yi bokk na ci ibnu taymiya dañuy wax ne fitna yi mas gaar yonent yàlla yi bi ci gën a diis te gën cee metti te gën cee tiis mooy fitna yusuf alayhi salaam ndax fitna bu aju ci jigéen la te it ajoo ca noo xam ne nu doy waar la nga xam ne gëm yàlla képp ak teewlu sa imaan teew fa moo tax nit mën a mucc ca lu mel noonu benn moom fiñ ko indi dañ ko fa indi ngir tuutal ko ndax jàpp ne jaam la ki ko doon sàkku jabari buur la xoolal diggante ñaari dimension yooyu kooku li war a mën a tax mu wuy ji ko ci ay ay sabab kenn xamul lu mu toll ñaareel ba ndaw la loo xam ne ci digg dooleem la toll ndaw si bokk ci koo xam ne ci wàllu taar àdduna ak li ci biiram dañ koy waxtaane beneen sabab ba ngoog bu war a mën a tax mu wuyu ko beneen moo di ñoom ñaar rekk ni ci kër gi xanaa ku leen fa ñetteel muy seen borom ba leen bindoon suñ ko bàyyiwul xel mën nañoo def lu leen neex beneen bi yëmut ci ne ñoom ñaar rekk fa ne waaye dañoo wax ne wa xallaqatil abwaab noonu la lu ko alxuraan jàngale dafa tëj bunt ya maanaam ca biir la ko tëjee daa dugg ba ci biir mu tëj bunt ya ndax wax nañ ne téere tafsir yi koy leeral dañ ne juróom ñaari bunt la yoo xam ne da génn gii kees tëj ca bee bunt tëj jàll ca bee tëj te ba mu ko tëjee itam wa xallaqatil abwaab am na kenn ci borom xam-xam yi dafa laan ibnul qayim nee na da ko tëj tëjiin woo xam ne daa bàyyi caabi yi ca biir ba noppi galeen ko xam nga mën ngaa tëj bunt rocci caabi ja keneen ñëw yore jeneen caabi tijji ko man nga ko caa bàyyi nit fexe ba daaneel caabi jooju tijjee ko jeneen waaye nag buñ ko galenee kenn mënta dindi caabi ja ca biir wa xallaqatil abwaab ñoom ñaar dong nga fa des mu ne ko xiitalak maa ngi nii ci sa kanam ku mel noonu nag sunu borom tabaraka wa taala musal ko ba mu mucc ca loola loolu iman bi ne ci xol bi nga xam ne foo mën a nekk ma nga fa loolu moo ne moo ci mën a musal nit képp koo xam ne seetlu nga loolu ni mu demee ak ni mu bindoo ak ni mu doxee nga seet ko ci sa diggante yow su doon loolu moo la gaar ak kooka danga mën a natt yow sa sa mbir fan la toll foofu da ci mën a déggee fitnatu nisa fan la àgg ci góor itam kon fitna la ñetteel ba moo di fitnatul maali wal awlaad fitna joo xam ne dafa aju ci alal wala mu aju ci ay doom mooy ak njaboot rek eh, amr ibn awf al ansaari radiallahu taala anhu nee na yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na fa wallahi waat naa ci yàlla ne yonente bay wax de lal faqru axsha alaykum yéen sa baw xeet day li may tiital ci yéen du mooy ak ñàkk wóor na ma ne ku ñàkk ci yéen it dana mën a muñ dana mën a jóg dem fago ji walakin axsha alaykum an tubsata alaykum dunya waaye li may tiitloo ci yéen mooy ngeen dem ba mu yàgg ñu sottil leen àdduna ngeen doon borom alal yu dul jeex kama busitat ala man kaana qablakum nañ ko sottileeloon askan ya leen jiitu fa tanaafasuha ngeen di ko xëccoo moom àdduna comme na ko ñi jiitu doon xëccoo wa tahlikakum kama ahlakathum su ko defee mu alag leen nam alage woon xeet yooyu jiitu kenn xamul ñaata xeet yu jiitu ñoom la alal boole seen diggante ñuy xëccoo di noonoo di xeex ba alku ay civilisation yu mag yu taxaw alal ak ay doom ak ay njaboot ak ay jabar tax ñu féewaloo di xeex ba àdduna ak li ci biiram tas ku xool li suñ jamono di dund tey suufi jullit yi ci kaw suuf dëkki jullit yi tey seen réew yi li fa nekk ci ay deret yu tuuru li fi nekk ci ay noonoo ay xëccoo ci suñ biir réew yi ay werante ay ñaawalante te lépp boo ko seetloo lan moo tax muy àdduna kese waaye la ca yàlla am ci cër la tuuti la wala amu ci sax dara nag far kon kooku ci musiba yi ci la bokk fitna la sunu borom tabaraka wa nee na يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله wattandiku leen yéen ñi gëm yàlla seeni alal wala seeni doom soxlaa leen soxlaal leen ba ngeen fàtte yàlla an dikrillah wa man yafal dalik fa ulaika hum alxaasirun képp koo xam ne def nga loolu nee na perte nga njaboot gi ak alal gi daa war a doon ay jaamukaayi yàlla alal ji moyen la boo xam ne danga koy jël jaamu ci yàlla njaboot gi ëpp ëtt la boo xam ne des fay jaamoo yàlla ni ngay demee ci jàkka ji di fa julli noonu nga war a mën a ñëwee ci njaboot gi jaamu yàlla ci ñoom ñoom itam defal leen lépp loo xam ne lu baax ci ñoom la luy tax ñu jub jàngal leen yar leen solal leen yére jullit jàngal leen lu jullit di mel su boobaa ñoom ëpp ëttub jaamukaayu yàlla la ñu daal di doon ci yow su safaan ba amee nag alal yi caaxaan ko tax a jóg foo ko tax a jóg ay làmb ay ay po moo tax booy tax sa alal génn waaye bu ñu waxee lu jëm ci jàkka ji juróomi dërëm ngay joxe wala ñaar fukki dërëm suñ neen làmb ji ñu ne tudde nañ la ko nga génn million joxe kooku mooy fooyee alalam kooku alalam fitna la ci kawam njaboot gi itam ki nga xam ne luñ bëgg dong dong ngay xool waaye xooloo lu ci yàlla bëgg waaye kii daal nee na la papa nangam ak nangam daal laa bëgg jéem a xool loolu ba xam lu jaadu la am am na genn góor goo xam ne dane moom ay doomam wax dëgg yàlla am na benn baal boo xam ne benn yoon la leen koy la leen koy financé ci at mi te jàpp na ni loola moom lu woyof la waaye kooku musiba la sa njaboot war nañoo am leneen luñ séq ak yow en tant que responsable boo xam ne ëllëg yow lañ koy laaj nga da nga leen di organiser baal donte ñoom doo nga fa nekk sax na musiba la yaa nga leen di xëcc di leen dugal ci loo xam ne lor la joo xam ne danañ la ko laaj ëllëg kon lépp loo xam ne daal ci gàttal nit ki def na ko ci alalam fekk lu yàllay tere la wala mu téye alalam la ko yàlla ne woon def ko ci dafa lànk bañ ko caa def lu mel ne aset wala njaboot gi yoon wañ ko du woon sóob leen ci yoon wi ñu jub ku anfusakum wa ahlikum naara mu lànk bañ a def loola na xam ne njaboot ga bu boobaa doonut lu muy jariñoo alal ji doonut lu muy jariñoo waaye fitna la ci moom boo xam ne bu ëllëgee mbugal la koy andil wala yaasu billah ñeenteel ba ci sabab sabab yi tàbbal nit ki ci mooy yàlla moo di rawatina subuhaatu ahlil bida mooy ay lënt lënt yoo xam ne dañ koy sànni nit ki ngir jaxase am xelam ba mën koo dugal ci mooy yàlla léeg-léeg dugal ko ci mooy yàlla goo xam ne nataalub jaamu yàlla lay yor loolu mooy biddaa kon lënt yi nga xam ne waa biddaa dañ koy sànni ci kanam ahlu sunna lënt yooyu bokk na ci mooyukaayu yàlla yi sabab yi nga xam ne dañuy xëcc nit ki ba dugal ko ci mooy yàlla loolu moo tax biddaa bokk ci yi gën a graaw ndax nit ki jamono yi mu koy def daa jàpp ne moom day jaamu yàlla yëgul ne day mooy yàlla lim jàpp ne day jaamu yàlla fekk loola ci boppam ak mooy yàlla la loolu moo tax Sufyaan as-Sawri rahimahullah muy wax ne al bidaatu ahabu ila iblis min al maasiya bidaa ci boppam moo gënal moo gënal iblis mooy yàlla maanaam ki jël ak jaamu yàlla goo xam ne yàlla ko yonentam santaane wuñ ko moo ko tëralal boppam tudde ko jaamu yàlla di ko def nee na kooka moo gën gënal iblis ki dem ci baar ba jënd sàngaraam toog di naan lu tax al imam sufyan athawri mu ne fa inna al maasiyata yutaabu minha wal bidaata la yutaabu minha nee na ndax mooy yàlla kat ki koy def moom mën naa tuub jamono yu ne ndax yëg na ne moom day mooy yàlla waaye ki nekk ci biddaa nee na kooku moom néew na muy tuub néew na muy tuub ndax kat bala nga yëg ne da tuub day fekk nga yëg ne da mooy yàlla mais ki jàpp ne day jaamu yàlla kooku mënta tuub kon lënt yi nga xam ne dañ ko sànni ci kanam ahlu sunna ci ay biddaa bari na lool waru gar la ci boroom xam-xam wala ku ñuy tudde boroom xam-xam wootekat imaam jàngalekat képp koo xam ne nit ñi dañuy dàllu ci ñoom néew nañ wala bari nañ bu xamee la wér ba àggal bu xamee pas-pas ba wér xam sunna mu xam nag lënt yooyu yi ndax kat nit ki mën naa xam la wér ba àggal xamul lënt ya ñi xëy sànni ko men lënt yàq lam yoroon lépp faf kon lënt des koy jàng ba xam ko mën koo tontu wala nga am boroom xam-xam boo mën a dellu mu tontu ko ba noppi nag daw ko fépp fu ñu tasaaree lënt na ko daw yàlla xam na ne suñu rajo yi ak suñu télévision yi ay xew a ngi ci ay yëf yuy daje yoo xam ne dangay gis ku taxaw di sànni ay lënt ba ba mu jeexal da lay wóor ne lii ku taxaw di ko xool te fekk jàngoo diine ba xam ci dara kooku dana la dugal ci ay njaaxum yoo xam ne kenn xamul mu toll te fekk lënt rek la ki la wax ne charia ci boppam dafa mel ne benn feu benn feu xam nga chauffeur bi dawal ba agsi feu bi tàkk moom day taxaw bu beeree mu dem nee na am nay wàll yoo xam ne seen maqaama àgg na ci dañoo mel ne policier bi taxaw ci feu rouge xam nga kooku sañ na feu bi tàkk xonq waaye nit ñi ñëw mu naan jàll leen jàll leen ñuy jàll rek neen na am na wàllu yoo xam ne agsi nañ foofu la doonoon ay mooy yàlla yépp mën nañ la defal ngay def te du la wàññi dara comme na nga xamee ne chauffeur bi dem waa ci ab télévision fii ci Sénégal ci laa ko seetaan borom taxaw bi ko wax kilifa koo xam ne mbooloo topp ci gannaawam kooku ku fa jógee lan la lay mooy jàpp ne kon ah, nit ñi kat kon li ñu tudde mooy yàlla nit mën na leen ne bul julli nga bàyyi julli nit mën na la naa la sàngara nga naan sàngara nit mën na la sànni ay jigéen noonu rek mayu la ko deful dara nga jël leen yóbbu ñu doon ay jabar loolu nga fay jëlee waaye fekk loolu ci boppam musiba la moo xam ne lënt dong moo ko mën a andil nit maanaam qiyaas bu amul maanaa lay firi ndax jël yëfi doomu aadama yi ñu doxal seen i tëril nga di ko teg ci tëraliinu sunu borom tabaraka wa taala akub yonentam caaxaan féetewu ko kaw borom bi tabaraka wa taala ndax am na ay nit yu bind ñu ëpp maqaama yonent yi mu wàcce mas ngeen a dégg benn yonent boo xam ne danaan fekk lu yàlla tere mu ne def leen ko wala lu yàlla digle mu ne bàyyi leen ko musta am ci siiratul anbiya moo xam ñu leen topp bare nañ wala néew ñu néew nañ toppal ba mu jeex la lépp loo xam ne ab yonent digle na ko day fekk ne yàlla digle loolu lu mu tere day fekk yàlla tere loola kon nag soo ñëwee bëgg maa wax ne am na ay doomi aadama yoo xam ne du ñu ay yonent ba noppi àgg nañ ci maqaama yoo xam ne ab yonent àggu fa dama lay wax bul àggale li nga wax amul bul àggale foofa la booma lënt daal di yàqoo kon li ñu bëgg a wax foofu moo di lënt yi dafa doon loo ne lu mat a wattandiku la ndax dafay yàqal nit kii te da koy dugal ci mooy yàlla juróomeel ba moo di xuranaa ussu àndandoo yu baaxut kooku ci mosi ay la bokk te borom bi tabaraka wa taala nee na ku sori tudd yàlla ku sori tudd yàlla yàlla mën na laa wuutal qarin maanaam àndandoo boo xam ne moo lay yàqal wa man ya'shu an dikri rahmani nuqayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qarin képp ku sori tudd yàlla nee na dañ koy lënkaleeg seytaane joo xam ne mooy doon àndandoom ji koy yàqal fu mu toll fu ne guddeeg bëccëg kon nit ki na bari lu muy lu muy tudd yàlla réccu rek moo ci moo ci mujj moo tax borom bi tabaraka wa taala mi wax ne wa innahum la yasuddunahum an sabil maanaam dañuy dox sa diggante ak siratul mustaqim jaar ci yoon wu jub bi wa yaxsabuuna annahum muhtadun loolu mooy la ca yées dañ lay jàddloo ba àggal nga wëlbatiku gëm ne yow ci siratul mustaqim nga jaar waaye nag bés a ngi ñëw muy réccu am moo tax mu ne wa xatta ida jaana qaala yaa layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayni fa bisa al qarin bis bu ñëwee xam ne kii da ko doon réeral ñu teew fa seen boroom seen kanam boroom kooko day wax ka ko réeraloon ne ko eh, ak a neexoon yow fa nga doon dund ak fa ma doon dund ba nekkee ci àdduna nga nekk ca fa gën a sori ci sow man ma nekk ca fa gën a sori ci penku xoolal loola ka nga doon topp jàpp ne kii moo la jubbanti moo la teg siraatul mustaqim moo la gindi moo la def nangam nangam bés ñëw nga ne ko ak a neexoon bayni wa baynaka bu'dal mashriqayni maanaam ni penkook soowu soree ak a neexoon maag yow nu soree noonu ci àdduna fa bi'sal qarin nee na jooju àndandoo baaxut kon moo lay won ne àndandoo fii ci àdduna dañ koy tànn ñu bari nag bu ñu nee àndandoo dañuy def nag mooy moroom mi ngay àndal fi ngay xëy di liggéey ak wàcc ak yu mel noonu waaye yëmut foofu ñoo ñëw nga ca biir waaye kan ngay jël wóolu ko ci sa diine loolu mooy qarin bi gën a rëy kooy wóolu ci sam njàng lay jàngal ko mu doon la ngay jëlee ci moom ab xam-xam lu mu doon la ngay jëlee ci moom jikko lu mu doon ka ngay jël ne ko sama diine yow laa ciy déglu yow laay laaj yow laay def kooku ku mu doon kooku mooy xarin boo xam ne bu àndoon ak mooy ki la gën a gaaw a réeral comme ni nga xamee ne bu jubee mooy ki la gën a mën a gaaw a gindi loolu faaw ñu bàyyi ko xel boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne nit ki ab àndandoom ka muy àndal di dugg ànd ak moom di génn na ko tànn su ko deful même bu baaxee mën nañ ko askane koo xam ne bokku fa lu tax mooy fekk ne day ànd ak koo xam ne ku ku mu war a àndal la moo tax waxkat ba day wax ne wax waxdar mu aaxaata danii li annahu yudi kama yudi saxiixa al ajrabu nee mu aaxaata danii wattandikul di ànd ak ku ndaxte mu suuf ku suufe koo kii yudi nee na day wallaate comme ni nga xamee ne gëléem gu ràmm day wàll gëléem gu wér nee na noonu la koy wàlle kama yudi saxiix al ajrabu al ajrab mooy gëléem goo xam ne dafa ràmm ràmm bu ñu ko waxee mooy feebar boo xam ne bu ñëwee yaram bi day fees dell ak i góom su gëléem gu mel noonu amee gëléem la wax sax waaye bépp mala wala doomu aadama sax ju fees dell ak i góom bu ñëwee di tëdd koo xam ne si dafa wér pelag balaa yàgg nga gis mu yori góom nee na ànd ak koo xam ne ku jugul noonu la mel waxtar inna al qarina ila al muqaarani yunsabu tànnal sab xarit tànnal sab xarit na doon koo xam ne da koy damoo ci kanam nit ñi foo ne jëwee sama xarit ñëpp xam ne a yow de kon tabaarakallah mu ne kat inna al qarina ila al muqaarani yunsabu kenn ku nekk ka muy àndal kooka lañ koy askane waxaat nañ ne ida kunta fi qawmin fa saaxib xiyaarahum wala tasxabirul arda fa tarda maa radi su fekkee ne da ngaa nekk ci biiru nit nee na fa saaxib xiyaarahum àndal ak seen i tànneef mooy ñëfa gën wala tasxabil arda bul ànd ak ki nga xam ne dafa alku soo ko defee da ngay da ngay alku ànd ak ka alku bul tànn ki alku ndax kon da ngay alku ànd ak moom waliyaasu billah an il mari la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaarani aw bil muqaarini yaqtadi nit ki boo ko bëggee xam bul laaj ne ko yow yaay kan waaye laaj ko koy àndal soo xamee ànd àndandoom rek xam nga ko moo tax dañuy wax ne qul lii man rafiquk aqul lak man ant qul lii man rafiquk aqul lak man ant wax ma ki ngay àndal danaa la wax yow yaay kan kon faaw nag tànn àndandoo danga koy tànnal sa bopp sa njaboot nga tànn leen yi ñuy àndal say soxna nga tànn leen i àndandoo say xarit nga tànn leen i àndandoo ba njaxas du dugg ci seen biir yooyu lu mat a bàyyi xel la juróom-benneel bi moo di fasaadul bii ati wal mujtama bokk na ci sabab yi dugal nit ki ci mooy yàlla moo di société bu yàqu nag société bu yàqu nit ki bu fa nekkee day def effort bu bare bare bare bari ngir mu mën a topp yàlla waaye day defaat effort bu bare bare bare bari ngir mu mën a mucc ci mooy yàlla yaar yooyu lay boole kon ci coono nga nekk coono fooy jaar ba liñ la tere doo ci dugg ak coono fooy jaar ba liñ la digal nga mën koo def ñaari coono yooyu mooy tegu ci sa bopp kon du lu yomb société bu yàqu bis bu set boo xëyee dañ lay yombalal mooy yàlla yi ci anam yépp ci li ngay gis ak li ngay seetaan ak li ngay déglu presse baag yépp lu bon lañ lay wax ci lañ lay woo itam ànd ak néew goo xam ne dana ko néew ñuy digle lu baax ak tere lu bon boo yeexee sax da nga naan day dem ba mu yàgg ñooñu amatut loolu mujj nuur kon société ci boppam am na rôle bu mag boo xam ne ci yàq doomu aadama yi ci la ci la bokk moo tax bari nag ku juboon tàbbi ci benn société yàqu fekk société baa ko yàqu comme li nga xam ne safaan ba it nag léeg-léeg nit bon dem ci société boo xam dafa baax dafa sell mu wëlbati bu baax sell kon société ak environnement am na cër bu mag a mag a mag ci njub ak dëng loolu juróom benn sabab la yoo xam ne benn bu ci nekk jullit bi war naa góorgóorlu kem kàttanam ba wattani ko mën su ta wax ne nag nit ki na wattu ab société bi maanaam bu mu bokk ci société bi ok faaw mu bokk ca nag ginnaaw fa la dëkk ci société bi la bokk waaye na am num ca bokke na am num ca bokke moo di benn na xam li baax ak li bon loolu moom ci jàng lañ koy xamee boroom xam-xam yaa ngi fi jàkk yaa ngi fi ñu ngi xutba nit ñi di dégg jullit yi dégg ñu ngi jàngale nit ñaa ngi dégg kon daanaka lu baax ak lu bon moom nit kuy dund ci société yu mel nii wóor na ma ne laayu sum borom tabaraka wa taala tege na ci sa kaw borom bi tabaraka wa taala daa bindoon nit ñi def ci ñoom fitra boo xam ne mën nañoo tamyiz yi baax ci yi ñu jëfandikoo ak yi ca bon nit ki war na ko mën a xamal boppam dem na ba ab société yàq ko wëlbatikuwaat na déggaat na ay defarkat ay boroomi xam-xam ñu ngi góor góor seen kem kàttan ñu ngi xutba ñu ngi jàngale ñu ngi tasaare soo yi koo dégg léegi mi ngi di déglu kon xujjatullahi qaimatun alayna jamian lay suñ borom tabaraka wa taala tege na ci suñ kon lay moom amatul société bu mel noonu nag kon tombangoog boo xam ne mën na laa musal xàmme nga li baax ak li baaxut jéemal góor góorgóorlu ba la baax ca ngay nekk lu baaxul nga sori ko ci ñetti soriin yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale loo ci mën a soppi ci sa loxo na daal di am loo ci mën a soppi ci sa làmmiñ na daal di am boo mënut loxo ba su fekkee yooyu yëpp mënu ci nag xol ba moom bu mu ci ànd mukk bu mu ko mas a rafetlu itam fu mu toll fu nekk nañuy dégg na yow da nga koo naqarlu da nga koo ñaawlu ci say wax ci say jëf ci sa kem kàttan waxoon naa la ne xam lu bon ak lu baax doonut lu jafe bari na kuy nuur ci lu bon di ko def waaye boo ko laajoon mu ne la ci lu bon la nekk xam na ko waxoon naa la ne muus mi nga xam ne mala la yàlla bind ko mu nekk ci fitraam boo doon lekk fii tey jël benn yax jox ko ko wala benn morso yàpp ci sa wet lay toog lekk ko ba mu jeex waaye bu doon moo jekki-jekki fëkk ko duutoo ko seen day daw feneen la koy lekk waaye du doon ci sa kanam parce que na ne lii lu ñuy tere la mu def ko te kooku malal la boo xam ne fitra fitra bi yàlla def ci moom moo tax mu xam loolu lu tax nga jox ko morso bi mu toog sa wet lekk ko ba mu ba mu kii bi ko yoree mu ne ko këf rek mu ne pesat jóge foofu yëpp dem lekkee ji ko feneen mooy xàmmee lu ñuy tere ak lu ñu dul tere doomu aadama yi lay wu mel noonu tege na ci seen i xol <coughs> environnement mën naa dem ba yàq ko nag ba mu lëndam waaye yu mel nii nag moo koy dindiwaat mooy nit ki demaat ba la lëndamoon ci xolam ñu xaccaat ko nag ba mu weex ba nañ naññi su ko defee mu xàmmee lu baax ak lu bon su boobaa lay amatut mooy sori la bon rek te jéem a jàpp ci lu baax ak la bon lu mu bari bari bari ak ña ca dugg lu ñu bari bari bari moom lu bon rek lay mos a tudd mënut a dem ba mu yàgg mu soppi ko mu nekk lu baax. kon nag ñu ñëw ci sunu ñetteelu tomb muy asaarul maasi jeexit yi nga xam ne mooy yàlla moom lay indi. ci nit ki wala mu koy andi ci société bi kon ñu tàmbalee ko ci asaarul maasi ala al fard yow comme doom aadama mooy yàlla yi lay gaar di la dal lan la lay jural benn moo di maggaay bi sunu borom tabaraka wa taala màgg moom lay jëkk a woyofal ci xol bi na mu waroon a màggale boroomam ak xëyba bi sunu borom tabaraka wa am ak kibriyaa bi mu am ak lim def ci yow ci njekk lépp ba nga nekkee ci biir mu di la toppatoo ba nga génn doon lu ñàkk solo mu tàggat doomu aadama yi di la defar di la defar ngay dox ba xëy doon ponkal di dem ak ñëw yor sab liggéey loolu lépp nga teg ko fële wëlbati ko fekk lam ne la woon bul ko def nga nekk ci di ko def di ci xëy di ca goon lam ne la woon dee ko def nga teg ko fële amoo ci soxla bokkul ci sa programme wala bu ca bokkee it ca suufu list ba la nekk kon kooku màgg gi suñ borom màgg ak fa mu toll ak lam yeyoo ci moom ak lim def ci moom ci aw yiw yooyu yëpp day daal di woyof ci xol bi te li feeg mi ngi noor ci biir mooy yàlla yi loolu day gën a woyof yàlla yàlla musal ci loolu ñaareel ba moo di ne mooy yàlla ci sabab yi xañ nit ki xam-xam ci la bokk ci sabab yi xañ nit ki xam-xam ci la bokk benn li muy jàng du ko mën a dégg da ngay wax ak moom mel ne feneen la xel mi nekk nekkatul ci loolu parce que xam-xam leer la mënu faa dugg imam wax na ko shakawtu ila wakiin suua xifdi fa arshadani ila tarki almaasi wa axbarani bi an alilma nuurun wa nuuru llahi la yuta li aasi nee na sama sëriñ bu ñuy wax wakii damaa ñëw ci moom di ko jàmbat ne ko man de lu ma mokkal fàttewaat ko nee na mu ne ma bàyyil mooy yàlla bàyyi lépp loo xam ne xeetu mooy yàlla la ndax xam-xam day leer te ak leer munta dañu mooy yàlla ci benn xol sun borom tabaraka wa taala wax na ko in tattaqullah yaj'al lakum furqaanan leer gi leen yàlla di defal ñi mën cee xàmmee dëgg ak caaxaan leer googu su ngeen ragalee yàlla ngeen koy mën a am waaye soo ragalul yàlla nekkoo ci njub mën a nekk ci mooy yàlla doo ko am wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla su ngeen ko defee yàlla xamal leen kon ngir xam-xam mën a tuuru ci biir xol bi faaw nag boroom wattandiku lépp loo xam ne euh, dafa jëm ci loolu léegi-léeg nga gis ku sonn lool ci xam-xam nër nër guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg ma ngay jàng mu ngay dugg ma ngay génn waaye fekk mi ngi ci ay njaaxum yoo xam ne ay mooy yàlla la bu wëlbati koo seet lim jàngoon day gis ne lim cay xam tuuti la bu ko jéemee mokkal mokkal gi da koy të yooyu yëpp fekk lëndëm gi ne ci xol bi moo war a dañ ba àggal leneen lu leer door mën a dugg kon kooku tomb la boo xam ne nit ki faaw mu yar ci boppam ñetteel ba moo di alxirmaanu min ar rizqi mooy yàlla day xañ nit ki wërsëg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wér mu ne inna al abda la yuxramu rizqa bi danbi yusibuhu jaam bi danañu ko xañ wërsëg ci sababus bàkkaar boo xam ne da caa nuur di ko def kon wëlbati ku xoolaat sa bopp vérifié xool bàkkaar yépp nga dégaatu leen ñu dem ba jeex tag nga jaar ci siraatul mustaqim am jom dem liggéey yàlla defal la wërsëg man nga ne ma ah lu tax kon yéefar bi nag moom di mën a am wërsëg ab laaj la dafa kooku moom ci mooy yàlla lay xëy di ca gont di ca nelaw di ca yeewu waaye rek léeg-léeg gis mu yore milliard yonente bi alayhi buy wax loolu ab jullit lay waxal ab jullit lay waxal jullit bi dafa am yoo xam ne bu ko defee fii lay jote ak fayam mbugalam fii la koy jote ginnaaw borom bi tabaraka wa taala daa nar ci moom aw yiw ëllëg mu war a dugg ci ñuy war a dugg àjjana te mi ngi nekk ci jaaxum yoo xam ne da ko war a bàyyi day jël lu diis teg ko ci kawam loo xam ne day tax mu bàyyi loolu mu nekk ngir mu mën a jub mën ko ci raxasale itam bàkkaaram yooyu danañ jàng ci kanam ne bokk na ci raxas bàkkaaru jullit bi mooy teg ko yu métti yu métti yooyu ay xeet la kon loolu moo ko wutalee ki nga xam ne moom ci musiba la nekk bi kéefër la moo tax jullit bi wala kii tuddoo jullit saa bu gisee ne ci mooy yàlla ci lay xëy di ca gont ba noppi wërsëgam di tuur na mu war a tuuroo sooy ba mu tiit ci boppam parce que loolu istidraaj la istidraaj la istidraaj bu ñu ko waxee mooy loo xam ne da lay xëcc gëf lañ koy tuddee di la xëcc di la ñor di jëmale la ci loo xam ne boo ko toppee duutoo yem ci kuy mooy yàlla waaye da nga ciy topp ba def kéefër far ci kéefër ngay mujj wax yaasu billaahi faatu ànd ak ña nga xam ne dañ leen doon sottil fii ci àdduna ba noppi ñi doon ay yéefar sun borom tabaraka wa dafa am ay sunan rabbaani yu nekk fii ci kaw suuf yoo xam ne jullit bi daf ko war a bàyyi xel ci ak dundam su ko bàyyiwul xel musiba yu mel noonu loolu la koy andil ñeenteel ba annaha sababun li taasiri al umuri alayhi fala yakaadu yatawajjahu li amrin illa yajiduhu muxlaqan duunahu aw mutaasiran alayhi bakkaar ak mooy yàlla ci jullit bi bokk na ci yim koy andil mooy jafeel ay mbiram bunt bu mu fëgg fekk mu tëje fu làmb rek mu të fu làmb rek mu të moo tax jullit bi foo demee ba gis lu mel noonu ci situation del si waatal ci sa bopp xoolaatal say jaamu yàlla yi la yàlla sant foofa toll xoolaatal yi mu la tere foofa toll xoolaatal say julli guddi ak say ñaan sa borom tabaraka wa taala ak wéet ak moom ak sa sell ak sa sori lu bon foofa toll yooyu mënuñoo ànd soo gisee lépp tëju ci sa kanam ngay fëgg bunt boo fëgg mu tëju bunt boo fëgg mu tëju bul yaakaar ne li koy réparé génn na sa xol bii del si waatal lijjanti sa bopp ba mu lijjantiku incha allah bunt yëpp dana ubbi ko ci sa kanam juróomeel ba moo di zulmatun yajiduha al aasi fi qalbihi ki nga xam ne dafa nuur ci mooy yàlla am na lëndamu xol gu ci moom goo xam ne moom da koy yëg nit ñi muy dundal de duñ ko yëg waaye ni muy gisee zulmatu leyli lbahim ida dlahamma lëndamu guddi gi lëndam këriis ni muy mel ci kanam ay bët lëndamu mooy yàlla noonu lay def ci xol boroom nag da koy yëg comme ni ngay yëge lëndamu guddi ni nga koy yëge ci siy bët waaye munu ko wax wax ak nit ñi mënu koo waxtaane parce que doonut lu mu mën a melal waaye yëg na ne mi ngi dund loo xam ne bokkut ak doomu aadama yi ànd ak seen bànneex ak seenu texeeg seenu noflaay ak seen yëg-yëg yu leer dana yëg ne moom bokku ci parce que am na lu dox digganteem ak loolu kooka mooy yàlla moo koy waral loolu moo tax abdullah ibni abbas radiallahu taala anhuma nee na inna lilxasanati diyaan fi lwajhi nee na def lu baax am na leer gu muy indi ci xar kanam wa nuuran fi lqalbi ak leer goo xam ne ci xol lay nekk wa saatan fi rizqi nee na itam ak yaatu wërsëg nee na wa quwatan fi lbadani ak wérug yaram wa mahabatan fi fi qulubi alxalqi ak mbëggeel goo xam ne yàlla moo koy def ci xolu doomu aadama yi kon juróomi yëf leerub xar kanam leerub xol wërsëgu yaatu wér gi yaram mbëggeelu doomu aadama yi loolu lu koy andi alxasana def lu baax waaye yemut foofa nee na wa inna li sayiati sawaadan fi lwajhi am na lëndamu xar kanam buy nekk ci mooy yàlla wax seetlu ngeen naankati sàngara yi ak tuxkat yi yàlla xam ne foo leen gisee jërul ngay laaj ki nuur ci tux bu wér a wér yoo xam ne fu mu toll mi ngi yor cigarette bi ki nuur ci di naan sàngara ak mooy yàlla foo ne jàkk xar kanam bi da ngay xam ne kii am na leneen lu ci nekk dem na ba ci xar kanam yi doomu aadama ju nekkul jullit sax far am na fu muy toll da nga koy xool kii moom bokku ci ñiy jàpp ak a sujjóot ak a julli kon loolu abdullah ibn abbas wax lu wér la lëndamu xar kanam wa zulmatan fil qalb na ak lëndamu xol mooy li ñu doon leeral foofu léegi wa wahanan fil badan nee yaram wi day néew kàttan da koy teel a dab ndax mooy yàlla gaa ko waral mooy yàlla gaa ko waral ndax mooy yàlla gi bu bu fekkee fépp la ma ngay naan lu bon ma ngay lekk lu bon lu daganut ma ngay njaaloo ma ngay def nangam yaram ma du ko fekke boobu wax nañ fil badan ñu wax ne ku lekkee ñaari loxo gaaw a regg te ñaari ñi mel noonu dañuy lekk ñaari loxo ci lépp muy seen lépp day gaaw rek su ko defee wahanan fil badan nee na wa naqsan fi rizqi wërsëg bi itam day manqué ci wàllu baatin ndax suñu borom tabaraka wa taala moo koy mbugale loolu waaye ci wàllu zahir itam parce que lu mu am yàq ko wa bugdatan wala fi qulubi alxalqi ak mbañeel goo xam ne nit ñi dañ ko koy bañ ci seen i xol suñ ko ko waxee ak suñ ko waxul buñ ko ne jàkk rek du doon koo xam ne kii ku ko gis bëgg ko loolu suñu borom tabaraka wa taala moo ko defal ñooñu juróom-benneel ba moo di bokk na ci musiba yi maasi di indi moo di ne tasrau amthalaha mooy yàlla day indi geneen mooy yàlla maanaam day jur kooku musiba mu mag la loolu moo tax kii mooy yàlla dafa war a wattandiku boo xoolee sax ci wàllu histoire da ngay gis ne mooy yàlla yu bari yu nit ñi def tey yeneen yi mooy yàlla yu yàgg yu amoon ñoo ñoo leen jur kon mooy yàlla day jur xoola euh, bépp mooy yàlla boo xam ne daa aju ci bokkaale delloo ko ca kaw mu nuux ñoom ñoo ñu jëkk bokkaale ci kaw suuf ba yàlla yebal ci yàlla nuux kon ku bokkaale ci kaw suuf ku nekk mooy yàlla googee mooy jur sag mooy yàlla boo ñëwee ci yàqu jikko xawmu lóot jikko yu yàqu ci ñoom la yem mooy wàllu li ñu tudde ngóor jigéen fa ñoom la tasaaroo woon wal iyaazu billah kawe ci suuf ak tooñ doom aadama yi réy réy loog teg sa bopp foo àggul firawna moo ci jiitu ñëpp kon gépp mooy yàlla goo gis nit ñi di ko jànkoonte am nañ mooy yàlla guy ndeyam ci histoire boo xam ne moo ko jiite waaye mooy yàlla yi nit ki defit nit ki day dugg ci mooy yàlla mu jural ko geneen mu def googa mu jural ko geneen day mujj xuus ci biir géejug mooy yàlla goo xam ne duutu xam lu ko cay génne da gis moo yàlla goo xam ne ci xool dara rek la tàmbalee woon moo tax bët yi lu ma ta wattam la lu ma xéewalu suñu borom tabaraka wa taala la boo xam ne dañ koo war a dawalee lépp lu suñu borom tabaraka wa taala bëggul internet bi ak yi ci nekk ci ay lor ak i njariñ nit ki na wattandikul lépp lu ci ne ciy lor nit ki mën naa xool benn image rek mu xëcc ko yóbbu ko ci leneen lu gën a rëy loola mu dugg ca loola jëlewaat fa leneen loo xam ne mu yéesati loolu noonu la koy toppee ba faf ci biir géej yàlla na yàlla juróom-ñaareel ba moo di ne mooy yàlla tud'ifu alqalba an iradatihi jullit bi dafa war a am li ñuy tudde iraada mooy li mu bëgg tam doon lu baax mu am courage bu mën a jóg def ko am ittey mën a jóg def ko te dara du dox diggante bu moom ida azamta fa tawakkal ala allah soo dogoo bu wér ne lii lu baax la wakkirlu ci sa borom def ko day dem ba yëg-yëg boobu du ko mënati du ko am xol bi day day day néew doole ci kanam bëgg-bëggam moom la mu bëgg a def ci lu baax nga gis borom alal joo xam ne lii ay naalam yépp mooy bëgg naa tabaxi jàkk bëgg naa defar ay daara yoo xam ne dafay teg ay jàngalekat di fayal gone yi te duñ fay dara yooyu yépp moom lay calcul bu wéeteeg boppam waaye nag du ca def dara lu tax mooy amul tawfiq ja ndax iraada ba muy lay tax mu mën a jël décision boo xam ne day jóg def ko loolu la mooy yàlla nga yàq du man xel maa nga fa di xalaat ak a waaye nag lay jël décision di def décideur bi ne ci biir xol bi kooka la ñëw alak ko maanaam mooy yàlla gi daf ko alal yàq ko su ko defee lu mu bëgg def ci lu baax itam du ko mën xel ma da nga koy calcul rek di tax euh, am na borom xam-xam yi ñoo xam niñ firee wa jazaau sayyiatin sayyiatun noonu lañ ko firee maanaam wa jazaau sayyiatin sayyiatun mislaha misluha maanaam bépp mooy yàlla dañ koy fayee gereenu mooy yàlla loolu lay jur loolu lay firi maanaam dafay néewal nit ci doole Euh, lenn ci asalafu saalix dañuy wax ne inna min al min uqubati sayia alsayiatu baadaha wa inna min sawaabi alxasanati baax baadaha bokk na ci mbugal yi ñuy mbugale ñuy def lu bon mooy lu bon loolu bu xasee ba dugg ca duutu mën a bàyyi lu bon day continuer di ko def rek amatul iraada boo xam ne moo ko mën a téye ba du def lu bon comme li nga xamee ne bokk na ci pay gi yàlla di fay kuy def lu baax mooy bu dee def lu baax saxoo ko iraadaam day jublu ci def lu baax da koy yomb fu mu toll fu nekk da koy mën yàlla na yàlla defal loolu te mosul na ci lële eh, juróom-ñetteel ba ci yooyu yi nga xam ne mooy yàlla da koy indil individu bi annaha sababun li hawaani al abdi rabbihi day dem ba doomu aadama li muy màgg li ko yàlla di fonk lépp day dem ba doya di fi kanam boroomam wa suquutihi min aynihi yàlla dootu ko faa amatut ci moom benn paal joxatu ko maqaama bi nga xam ne moom la joxoon doomu aadama wala moom la joxoon sax jullit dem na ba gën a suufe loola moo tax alxasanul basri rahimahullah day wax ne haanu alayhi fa asawhu walaw azzu alayhi la asamahum seenu doye di fa yàlla moo tax ñu nuur ci mooy yàlla yi su fekkoon na ñu tekki dara fa yàlla lañ kon yàlla musal leen ci mooy yàlla kon yàlla nu tekki dara fa yàlla bokk na ci jeexit yooyu moo di day indi toroxte nit ki day torox day yëg torox tànge joo xam ne ci xolam la nekk donte adduna ak li ci biiram mu ngi ci loxoom waaye am na lu mu yëg ci xeetu toroxte bokkul ak lëndëm gi ma doon wax de waaye xeetu toroxte su toogoon ak nit ku ñàkk sax am na lu mu yëg ci kanam koo xam defe na ne ñëpp ne ci kanam ñëppay kawe suñ doon wax ba tudd lu bon sax day defe ne moom loolu lañ ci jublu bu ñu xëyoon ab wax ne nangam ak nangam day jàpp ne moom loola moo ko def li wax ne ku ku aj day bañ ku téel luñ tudd ci lu bon rek keroog loola moo ko def su ko defee toroxtaange jooju lay doxee ci kaw suuf fu mu jaar ku ne suñ dee waxtaan ci ku bon mën ñooñu xam naa man lañ ci jublu suñ defee nag parce que lenn lu nekk am na lu mu fa def loo xam na kenn yëgu ko même amaana wax dañ koy tudd rek tax na mu jàpp ne ñàkkul ku ko yëg nekkul ci jàmm fu mu toll fu ne jàpp na ne am na ko topp ci moom koo xam ne am na lu mu ko bindal denc ko loo xam ne su yëngoo rek mu feeñal ko toroxtaange jooju mooy dox ci kaw suuf kon mooy yàlla ci ñu gën a bon ci la bokk loolu ibnul qayim moo ko wax ci irasatul lahfan bokk na ci nag yi nga xam ne daf koy gaar te bokk ci yi ci yées itam moo di ne mooy yàlla yi nag su dajaloo nag ba bari nit ki te dellu gannaaw lam koy indil mooy at tabu ala qalbi saaxibiha xol bi day mujj ñi tàmpe ko duutu nangu lu baax loolee borom bi tabaraka wa taala wax ne xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gishawa naafiq yi lay wax waaye mooy yàlla bu ba bon ak bon ak ñàkk a jub ak ñàkk bëgg lu baax mooy tax nit ki day dem ba xol ba ci boppam duutu nangu lu baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis bu wér nee na ki gëm yàlla su defee benn bàkkaar loolu day indi benn tomb bu ñuul ci xol ba su tuubee ñu effacé waat tomb bu ñuul boobu waaye nag su continuer rek def bàkkaar tomb bu ñuul ñu defaat beneen tomb bu ñuul di ko def di ko def nee na bu yàggee day mujj xol bi ci boppam day muuru ba melokaan ba mu yoroon duur si mel yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam mu ne loolu la sunu borom tabaraka wa taala wax ne kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun nee na rayn boobu wala raan boobu muy ñuulaay boobu nga xam ne benn tabaqa lay doon maanaam ab déele lay doon bu tegee ci kaw xol bi nee na boobu mooy mujj muur léppam lu baax ba kooka noona lay mujj mel yàlla na yàlla musal ci loolu su ko defee nag kooka mooy àgg ci xol bi muur na ci lu baax maanaam ya baaxoon fi moom lu bon lay soppi ko ya bonoon soppi ko lu baax am na nit ñuy dox ci kaw suuf si ñoo xam ne noonu lañ mel buñ gisee ku yor melokaanu sunna wala melokaan bu baax sax seen xol du nangu loolu jàpp ni ñii daal am na melokaan yuy jor sànni leen ay kàddu wax ci ñoom bu gisee ku def yu bon a bon a bon yu ñàkk solo ci kaw mbedd mi ne ah, kii de moom tubaarikàlla dégg na jamono ji dëppoo naag nangam ak nangam kooku xol ba dafa muuru xamleetul lu baax ak lu bon fukkeel ba ak benn moo di xusulu xiyaanati alqalbi wa lisaan inda saati al ixtidaar yàlla na yàlla nit ki su demee ba nekk ci sukuraat am na xéewal bu ko sunu borom tabaraka wa taala di may su fekkee ci njub la nekkoon lépp lu mu dégg ci lu baax da koy mën a roy ndax mu mën a mujj lu baax man a mujj ci ab xolam waaye kan waroon ci mooy yàlla waxtu woowu saa ak agsee dañuy dox digganteem ak lu baax ibnul qayim nee na yaxuunuhu qalbuhu wa lisaanuhu an al ixtidaar bi ak ñaar ñëpp dañ koy won kooki nga xam ne ci mooy yàlla la saxoon xol bi ak làmmiñ bi dañ koy mooy bis bu demee ba àgg ci sukaraat fa rubbama taadara alayhi nutqu bi shahaada dana dem ba àgg ci gaamal naa wax waaye mënatula wax ashhadu an laa ilaha illa allah ndax su ko waxee amaana loolu mujj ci làmmiñam te yeyoowu ko nee na kama shahada annaasu kathiran min almuxtadirina asaabahum dalik nee na giseef na lu bari nit ñoo xam ne loolu moo leen gaar fekk ñu ngi ci sukaraat ñi leen di wax lool shahaada mënuñu ko wax xatta qiila li baadihim nee na am na koo xam ne dañ ne ko qul laa ilaha illa allah waxal laa ilaha illa allah nee na mu ne ah ah laa astatiu an aqulaha nee na mu daal di wonk ne mënuma koo wax mënuma koo wax wa qiila li aaxar qul laa ilaha illa allah nee na am na keneen ku nekk ci sukaraat ñi ne ko waxal laa ilaha illa allah nee na muy mu ne yaa rubba qaailatin yowman wa qad taibat kayfa tariqu ila xammaami munjaabi ñi koy wax lu laa ilaha illallah nee na muy fàttaliku nam doon def ca plage ya di jaxasoo jigéen ñaa yu mel noonu mu ne ndax danaa amati yoon ma mën a yóbbooti foofa wala iyaasu billah yàlla yàlla musal ci loolu nee na am na keneen koo xam ne dañu ko qul laa ilaha illallah nee na fa jaala yahdi bil ghina nee na muy way ñu ne ko wax laa ilaha illallah muy way wayam daan way xam naa ca ca ca wayukaay ya naan tatina tantana tatina tantana xata qada nee na loolu la continuer di wax ba faatu kon mooy yàlla musibale ci ëpp jullit jullit bi na ko wattani kem kàttan ba ca mujj moo di ne eh, mooy yàlla tudxilu l abda taxta laanati rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam ak rëbbu aku ñaan yàlla gu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yàlla da koy waral ci nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na alwasilata wal mustawsilata rëbb na ki yokk karawam ak ki ko koy yokkal loolu mooy yàlla la jigéen ji yokk karawam ak jigéen ja ko koy yokkalal ak luñ ko mën a yokkee yonent bi rëbb na ko kon mooy yàlla day waral rëbbug yonent bi wan naamisata wal mutanamisa kii wat ay yéenam tey jigéen ak ka ko koy watal yonent bi rëbb na leen wala ana aakil riba rëbb na ci lekk riba ak kañ koy ka koy bind ak ka koy seede rëbb na kii ger ak kañuy ger rëbb na ki mooy ñaari ki nga xam ne dafay ñaawal di jëmale ci ñaari waa waajuram rëbb na ku rendi dara te fekk da koo rendil ku dul yàlla rëbb na ku soppi lenn loo xam ne li borom bi tabaraka wa taala tëroon la mu soppi ko loolu lépp dikk na ci ay yu wér kon mooy yàlla bokk na ci liy tax ñu rëbb ak nit yàlla na yàlla mosal ci mooy yàlla mbokki jullit yi am naa nag lor yi nga xam ne mooy yàlla da koy indi ci société yi ma doon wax yépp jullit bu nekk war ngaa yëg foofa sa bopp war ngaa xool itam koy jaar ba mucc yàlla na yàlla mosal lii nag dafa doon loo xam ne bu mooy yàlla tasaaroo ciw askan day wàcc ci askan way yëpp te bu ñëwee lor ja ñëpp a cay loru loolu mooy musiba mi am na ndax ay jëmm yu néew mën nañoo nekk ci mooy yàlla googu kenn digalu leen kenn terewu leen mbugal ñëw wàcc ci kaw ñépp moo tax ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee lu mel noonu dañ ko laaj ne ah, anuhlak wa fiina saalixuun waaw ndax alkane daa mën a ñëw wàcc ci suñ kaw nun ñëpp te fekk nit ñu baax ñaa ngi fi nga xam ne ñoom dañ doon jaamu yàlla te bokkuñu ci mu ne leen naam ida kasura alxabas su fekkee ne mooy yàlla nga bari na ba jéggi dayoo te nit ñi defuñu li leen war su boobaa bu dikkee moom du fa bàyyi kenn su ko defee nag yu baasu naasu ala ka baaxoon lu baax lañ koy fay yàlla du tooñ kenn eh, ba ci jëkk <coughs> moo di ne mooy sabab la ci halaakul umam lii tax alku mooy yàlla daf koy indi kenn ku ne xam nañ suñu borom tabaraka wa taala labal na aw nit alag na aw nit ci ngelaw alag na aw alag na aw nit ci yuux yuuxu malaayika gu yuuxu seen biir ñëpp faatu alag na aw nit ci wëlba ci suuf la féete woon kaw féete suuf la féete suuf féete kaw fa kullan axas naa bi dan bi noonu la ko borom bi tabaraka wa taala nee na kenn ku nekk ci xeet yooyu am jël nañ la ci kaw bàkkaar boo xam ne yaa ko def fa minhum man arsalna alayhi xaasiba am na ñoo xam ne ay xeer lañ leen sànni wa minhum man axadathu sayxa am na ci ñoom koo xam ne malaayika xaacu ci seen biir rek ñëpp faatu wa minhum man xasafna bihi al ard am na ci ñoo xam ne yàlla dafa indi tremblement de terre ñëpp faatu ca loola wa minhum man agraqna am na ci ñoo xam ne dañ leen a labal waaye loolu lépp wa ma kaana allahu li yazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimun yàlla tooñul kenn nee na ñooñu ñoo tooñ seen bopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis mu ne fi hadihi l ummati xassun wa masxun xeetam wi nee na xassu dana ci am maanaam tremblement de terre yoo xam ne li muy rey ci mbooloo kenn du xam nam toll masx yi dana ci am ay nit ñu dem ba def njaaxum koo xam ne dañ leen di soppi ñu doon leneen fa qaala rajulun min almuslimin ya rasulallah wa mata dalik am ku ne ko yow yonente bi yàlla bi loolu kañ lay doon mu ne ida daharat alqiyaanu walmaazifu wa shuribat alxumur su ngeen demee ba la gën a feeñ ci seenub société mooy yii ay waykat yoo xam ne dañuy tëgg di xalam di way ñuy naan sàngara guddi ak bëccëg sooy ba ngeen di séentu loolu abu malik al ashari radiallahu taala anhu yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na la yashrabanna naasun min ummati alxamra yusammunaha bi gayri ismiha nee na am na nit ñu xas te feeñ ci sama xeet wii di naan sàngara ba tudde ba noppi tudde ko yeneen i tur yoo xam ne bokkut ak ay turam maanaam di ko jox yeneen i tur wala fi ne waykat yeeg tëggkat yeeg fecc ay artistes lañ leen tudde jëmm jëf ju bon jooju ñu tudde ko aar sàngara yi leen lu nekk wutal nañ ko tur bu dee ci arab sax mashrubaat ruux yi la ko ñu sàggan ñi di tudde maanaam naan yoo xam ne dafay dafay naatal ruux wala yaasu billah nee na dana am ñu naan sàngara ba noppi tudde ko beneen tur yusafu ala ruusim bil maasif nee na jamono yi ñu naan sàngara am ñu taxaw tiim leen yor seen i guitare jumtuwaay di yaxsifu llahu bi al arda wa yajcalu minhum al qiradata wal xanaasir nee na ñooñu yàlla dana ubbi suuf ñu tàbbi ci seen biir dana am ñu soppi ci ñoom itam soppi leen ñu doon ay golo ak i mbaam àll ay mbaam mbaam xuux kon kenn du wax ne xeet mi lu mel noonu du wàcc ci seen kaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëkku na leen wax la leen ci loolu ñetteel ba moo di ne mooy sabab la ci tàqale aw xeet sababun li tamassuqi wa tafarruqi wal ixtilaaf kenn ku ne xam na ne li nuy gis li nuy gis di ko gis ci xeetu lislaam bis nekk tey ci ay tàqalikoo ak i ak i xuloo ak i xeex sax ak i rayante ak tuurante yi deret loolu su woon mooy yàlla loolu dal ci seen am na ñu bari nag ñoo xam ne buñ gisee loolu am gisub kaw rek lañuy xool dafa ne loolu daal ay sabab la yoo xam ne xëccoo alal kese la wala affaire politique rek la wala daal xëy na ay frontières yoo xam ne dañoo jóoyoo ci diggante waa ko waral waaye fekk ne am na yeneen i secret yu nekk ca gannaaw am na yeneen i secret yu nekk ci seen gannaaw yu bokkul ak yooyu yoo xam ne mooy mooy yàlla gi nga xam ne askan wi dañoo nuur ci seen biir borom bi tabaraka wa taala war a daaneel seen i nguur war leen a suufeel kenn ku nekk xam na ne borom bi tabaraka wa taala dafa am sunan yuy dox fii ci kaw suuf buñ xoolee histoire l'islam Andalus ak la ko jiitu sax jamono yi nga xam ne dem nañ ba jullit yi daanaka adduna ak li ci biiram ñoo ko yëlifoon ñoo fi ëppoon doole ëpp fi alal ëpp fi xam-xam gën fee bari dañoo dem ba lan mu ci ñi jëm ci adduna commencé sàngara yi tasaaroo way misik caaxaan dem ba weesu bóor yi sax ba dugg ci lenn ci borom xam-xam yi di bokk ci loolu yor say jaam yoo xam ne ñenn ay xalamkat lañ ñenn ay nangam lañ soo toogee même la ngay naan bu dee lu lew sax am jaam bu góor bu taxaw fii jaam bu jigéen taxaw fii kenn ku ne yor gitaaram di la musigal yow sëñ bi yow sëñ bi borom xam-xam loolu lu ca tegu mooy borom bi tabaraka wa taala sël bu la nekkoon ci seen i loxo teg ko ci seen loxoy noonu moo tax lu mel noonu saa bu ko gisee wala nu gis ne luy wane ne mi ngi ñëwati parce que ni war nañoo tiit lii wàcc ci xeetu lislaam ñu gis mennum réew ñu lim ci lu matul ñetti ak million bu tegal ci ay doomu aadama faatu ñu rey leen ci ci loxol doomu aadama yoo xam ne loxoy jullit la ay yéefar jógewuñ fenn kenn jógewul fenn ñu wëlbati ko li fa gàddaay ci ay nit yoo xam ne amatuñ fuñ fanaan ak fuñ dëkk mat ñetti million ci benn béréb ku yaakaar ne loolu ay problème la ñuy lekk ci kaw boo xoolee la ko jiitu woon ak melokaan wa nit ñi yoroon da nga xam ne lii dal ci seen kaw mbugal mu jóge ci suñu borom moo tax borom bi ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard walakin kadabu fa axadnaahum bima kaanu yaksibuun su fekkoon ne nit ñi dañoo jub boole gëm ak ragal yàlla nee na maay wàcc ci ñoom xéewal yi jóge ci asamaan ak suuf waaye nag wan yàlla giñ wan gannaaw giñ wan gannaaw yàlla ak diineem nee na moo tax fa axadnaahum ma téye leen téye bu dër bi ma kaanu yaksibuun ci sababus lool yi nga xam ne ñoom ñoo ko fàggul seen bopp moo tax mu tëkku mu ne afa amina ahlul qura ndax ñu dëkk ci dëkk yi tey mooy yàlla dañoo am kóolute an yatiyahum basuna bayatan wa hum naimun ndax dañoo am kóolute ne musibam mu jóge ci suñ boroom ak mbugalam mën naa wàcc ci seen kaw guddi fekk ña ngay nelaw awa amina ahlul qura an yatiyahum basuna doxan wa hum yalabun ndax dañoo am kóolute ne suñ mbugal mën naa wàcc ci seen kaw ab yoor yoor bëccëgum dara kàmm fekk ñu nekk seen po ak seen caaxaan afa aminu makrallah ndax ñii dañoo wóoru pexem sunu borom tabaarak pexem yàlla fala yamanu makrallahi illa alqawmu alxaasiruun ñi nga xam ne dañoo perte dong ñooy wóolu pexe mu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala ku xool lii wàcc ci askan yi yàlla xam ne gis naa benn vidéo boo xam ne ci li wàccoon ci japonais yi ci gannaaw nit ñoo xam ne ci seeni baar lañ nekkoon def yaramu neen sol col yu bon nekk ci yéene sàngara di naan di def nangam ndekete rek baar biñ nekkoon ci boppam nga xam ne immeuble la boo xam ne foofu benn étage la fi bi gaañeeg ngelaw léeg li àndandoo jóg di sotti ko bi mu agsee foofu tabax bi ci boppam nii la def dafa tëdd ànd ca ndox ma di dem ñooñu nañ tasaaroo kenn xam nu mu demee ci àdduna nga xam ne ci mooy yàlla la leen fekk yàlla na yàlla mosal ci mel bokk na ci eh, mooy yàlla li muy andil ab societé moo di ne xéewal ya ko sunu borom tabaraka wa taala defoon da koy dindi loolu junj naa ko sànq te bu ko dindee du yam ci yóbbu ko rek waaye dafay wàcce yeneen i musiba yoo xam ne place am lay toog moo tax borom bi inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xata yugayiru ma bi anfusihim wa ida arada arada allahu bi qawmin suan fala maradda la yàlla du soppi la nekkoon ca nit ñi lu dul ñoom ñoo ko soppil seen bopp maanaam ñi nga xam ne dañoo nekk ci ak ak ak mbaax yàlla du xëy xëy di leen alal wala mu di leen def lu baaxul lu dul ñoom ñoo jekki-jekki ba mu yàgg ñu sopp seenu mbaax ñi nekk ci ak mbon itam yàlla du leen di fekk ci seen mbon googu di leen xéewala lu dul ñoom ñoo dem ba mu yàgg ñu dindi seen mbon nga tuub delluwaat ci njub bokk na ci ñu ngi tàmbalee gàttal moo di ne mooy yàlla ci société dafay dindi liñ doon tudde santé wér gi yaram taslubu ni'mat al aafiyati fi l abdaan jàmm ja nit ñi amoon ci seen yaram day yàqu ci xadisu abdullah ibni amr radiallahu taala anhu yonente bi sal allahu alayhi wa sallam nee na yaa maachar almuhaajirina yéen mboolem muhaajiroon yi xisaalun xamsun in ibtulitum bihinna wa nazala bikum audu billahi an tudrikakum nee na juróomi yëfa ngi yoo xam ne bis buñ leen ci nattoo ba mu wàcc ci seen kaw maa ngi leen di ñaanal yàlla ngeen bañ a loolu bañ leen a dal yooyu mooy lan mu ne lam tadhar alfaxishatu fi qawmin qattu xatta yuclinuu biha illa fasha fihim altaaun wal awjaacu allati lam takun fi aslaafihim lii daf leen di woon ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonente bi dëgg ndax lii ba mu koy wax amul woon nee na amul yenn nit ñoo xam ne mooy yàlla dana siiw ci seen biir faaxisha dañ koy firee njaaloo di ko firee yeneen mooy yàlla yi nee na musta du siiw ci aw nit mukk bañ ixlaan ko yëgle ko déclaré fo foo jaar fu ne gis mooy yàlla boobu nee na lu dul yàlla dana indi ci seen biir xeeti feebar ak xeeti metti yoo xam ne ñi leen jiitu woon xamuñu ko xeeti feebar feebar taaxoon buñ ko waxee ci xeetu feebar mooy boo xam ne bu xasee dugg rek day wàllaate dal kii dal kii dal kii askan wa musiba tege ci seen kaw nee na walam yanqusu almikyaala walmisaana illa oxidu bisinina wa shiddati almunati wa jawri sultaan duñ tooñ ci wàllu alal mi ngi ko tuddee wàññi lépp loo xam ne dafa jëm ci lu ñuy natt wala ñu di ko peese nga di ca naxe maanaam di naxante ci wàllu alal ak di njuuj njaaj ak di lekkante ci wàllu alal nee na askan wum siiw danañ leen nattoo lii as-siniin mooy ak bekkoor nawet yu teggeeyu wa shiddatil mu'na ak dund bu tiis moo xam ca baykat ya nga bokk wala fonctionnaire nga wala loo mën a bokk lu ne da nga yëg ne yow sa dund tiis na dund bu tiis bi weesuwul boo duggee ci weer bi daanaka buñ ne la way jot na nga tàmbali di lekk nga gis ku yor salaire bu rëy yaakaar na kii moom war naa mën a dund fekk li mu yor lépp da koo leb kër ga mu nekk da koo leb ci bànk oto bi muy war da koo leb ci banque amut lenn loo xam ne lu mu yor lu moom la salaire am bu rëy boobu bu dikkee ñooñu kenn ku nekk jël sa wàll li ci des mu fas ci yéenee dund la may fekk alalam jeex na mu toogaat kooku shiddatul mu'na la ñàkk tawfiq la nee na loolu lay indi maanaam naxante ci wàllu alal loolu lay jur beneen ba ca tegu mooy wa jawri sultaan ak jeng goo xam ne njiit da koy jeng kon njiit duñ dem mu yàgg mu jeng nit ñi tuumaal ko rek ne daa bëgg a jeng jeng waaye léeg-léeg nit ña nañuy mel mooy tax yàlla jox leen ku mel ne kañ am ca ñoom la suñ defaru woon yàlla defaral leen waaye ci naw yeyowuñ ko nag loola rek lañ mën a am nee na walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar saa boo xamee ne nee na tere nañ joxewuñ seen asaka ci seeni alal nañ ko war a joxe yàlla lam leen di nattoo mooy du leen defalati xéewal gu jóge ci asamaan ci wàllu taw walawla albahaimu lam yumtaru su dul woon bàyyi bàyyime yi nga xam ne ñoom ñu dara te ne dañoo ne ci kaw suuf war a dund nee na kon yàlla day téyeb tawam dootu ko wàcce kon léeg-léeg taw di wàcc ndekete jubluwuñ ci doomu aadama ya ya foofa waaye jur ga lañ bëgg ñu am luñ nekk yàlla xam ne léeg-léeg nga gis nawet boo xam ne nit ñi dañuy dañuy yor seen gerte di bay di kof kofal sonn sonn sonn ba nga xam gerte gi law na ba mel ni mu war a mel yëf yi jékki-jékki yem foofa bañ a ami doom ba noppi am ngooñ nag ngooñ bi moom jur gaa koy lekk kon ñooña la yàlla jubli ci taw bi bu boobaa waaye yow ma yaakaaroon ne dangay ngay jaay sa gerte nag toog di def ndaataa talax te jaamuwoo sa borom yow bokkoo ci moo tax mu ne wala wala bahaimu lam yumtaru wala naqadu ahda allahi wa ahda rasulihi illa sallat alayhim aduwan min fa yaxudu baada ma fi aydihim nee na saa boo xamee ne fecci nañ kullëre gi doxoon seen digganteeg seen boroom ak seen digganteeg seenub yonent jullit bi gan kullëre moo dox digganteem ak yàlla akub yonentam muy kullëre tawxid wéetal sunu borom tabaraka wa taala kullëre googu saa buñ demee ba fecci ko yàlla dana leen wàcceel ab noon boo xam ne ci seen kaw lay tegeet moo leen di ëpp doole la nekkoon ci seen seeni loxo dana ko jël yóbbu ko loolu defe naa ci askanu lislaam tey bari na kum wàcc nee na walam taxkum a'immatuhum wa ma lam taxkum a'immatuhum bi kitaabillahi illa ju'ila ba'suhum baynahum kooku moom leer na nee na saa boo xamee ne seeni njiit bàyyi nañ fa téere bi yàlla di attewoo leneen lam leen di jural mooy seenu ay seen diggante lay nekk boo xooloon réewi lislaam yi tey ñaata réew ñoo fi yor téere yàlla bi di ko attewoo néew na lool waaye lu jur noonoo gi dox seen diggante ñoom jullit yi ci seen bopp kenn xamul lu toll noonu kon loola la leen jural ñu teg ci suñu bët ñun ñëpp kon euh, nekk noonu moom mooy yàlla boobu li mu leen di jural kon sabab la ci xululul hazaim maanaam bépp ngañaay boo xam ne noonu lislaam mi ngi koy teg ci kaw jullit xamal ne loolu moo ko andi danañ jéem a jaar nag ci jaar bu gaaw ci tomb bu mujj bi tax defe naa li des ci waxtu wi Omar bareetul moo di sabab yi nga xam ne nag jullit bi nekkoon ci ay mooy yàlla bëgg na cee raxasu ba set ci wecc asbaabu takfiri dunubi wal maasi yal na ko yàlla jàpp na ndax kenn muccul ci bàkkaar yi kat ba ci jëkk mooy ak tawba tuub borom bi tabaraka wa taala nee na wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun tuub leen dellu ci yàlla yéen ñi gëm yàlla ñaareel bi al istigfaar jégglu day far bàkkaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis boo xam ne sayidul istigfaar la tudd nee na ku wax ne allahuma anta rabbi la ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastatatu audu bika min sharri ma sanatu abuu laka bi nicmatika alay wa abuu bi dambi faxfir li fa innahu la yaxfir dunuba illa ant nee na man qaalaha fi nahaari muuqinan biha ku ko wax bëccëg te gëm ko fa maata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli aljanna ku ko wax ci bëccëg te gëm la ca nekk nee na ma faatu ca bëccëg boobee nee na kooko ci waa àjjana la bokk wa man qaalaha min alleyli wa huwa muuqinun biha fa maata qabla an yusbiha fa huwa min ahli aljanna nee na ku ko wax guddi itam gëm ko faatu ci guddi googee nee na moom it ci waa àjjana la bokk kon istigfaar muy jéggalu bàkkaar yi bokk na ci yi nga xam ne yi gën a mën a far far ay bàkkaar ci la bokk ak tudd yàlla nag ci tudd yàlla yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ day fari bàkkaar bokk na ci laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir nee na ku ko wax fi yawmin miata marra ku ko wax ci benn bis lu ma téeméeri yoon kaanat lahu iddulu ashri riqaab am nga ci yool yool bu toll ne ku goreel fukki jaam loolu woyofut waaye nee na wa kutibat lahu miatu xasana ñu bindal ko téeméeri xasana xasana mooy tuyaaba waaye té wal xasanatu bi asri amsaaliha kon loolu junni la ñu bindal ko téeméeri xasana wa muxiyat anhu miatu sayi'a ñu faral ko téeméeri bàkkaar wa kaanat lahu xirzan min asheytaani nee na te day doon benn barrage bu dox digganteem ak seytaane yawmahu dalik nee na bis booba moom seytaane du ko mënal dara ah am na doon suñu càggante am na de xatta yumsi nee na ba keroog ngoon nga di joon nee na walam yati ahadun afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila akthara min dalik ne amul keneen ku def ku ko ku am lu gën lii mu am lu dul koo xam ne da koo wax lu ëpp lim ko wax kon loolu moo lay wan ne dikr boobu mënees na ko wax lu ëpp téeméeri yoon ku ko ëppale rek tam ànd ak sell yow yaa ko ëppale kon kooku day far day far bàkkaar waxaat na ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne subhanallah ku ko wax ci bis téeméeri yoon subhanallah wa bihamdihi xanaa loolu war naa yomb téeméeri yoon xottat xataayaahu nee na bàkkaaram yépp dindi nañ ko wala kaana misla zabadil bahr su toll woon ne duusi géej yi yàlla bind yépp def nga ci bàkkaar yu toll noonu waaye subhaanallahi wa bihamdihi nga wax ko téeméeri yoon ne yàlla far na bàkkaar yi suñu borom borom yërmaande bokk na yi koy far mooy ay jëf yu baax yoo xam ne nit ki da def yàlla far bàkkaaram ndax borom bi nee na inna alxasanaati yudhibna alsayiat dalika dikra lil zakirin lu baax soo koy def day effacer say bàkkaar bokk na ci ñaan gi nga xam ne mbokki jullitam dañ ko koy ñaanal ak malaayika yi di ko jéggalul ndax euh, jullit yi dana ñaanal seen mbokki jullit yàlla borom bi tabaraka wa taala di ko nangu walladina jaau min baadihim yaquluuna rabbana ixfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman safwan ibnu abdillah nee na damaa ñëw Shaam di ziyaare si abu darda ba ma ñëwee këram fekkuma fu ma fekk fa soxnaam ummu darda nee na mu ne ma foo jëm da ngay ajee nee na ma ne ko waaw nee na mu ne ma bul nu fàtte ci ñaanu yiw bul nu fàtte ci ñaanu yiw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax ne ñaanit ak jullit buy ñaanal mbokkum jullitam fu mu fekkewut jullit buy ñaanal mbokkum jullitam fu mu fekkewut nee na ñaan googu gu ñuy nangu la nee na moom may ñaan malaakaa ngi taxaw ci boppam mu wakkal la wax na koo xam ne loolu dong mooy liggéeyam xoolal loolu malaaka moo xam ne lay liggéeyam mooy jullit buy ñaanal mbokkum jullitam fu mbokkum jullitam nekkut mu ñëw taxaw tiim boppam kullama daa li axiihi bi xayrin qaala al malaku al muwakkalu bihi amin wa laka bi misli nee na saa bu ñaanee mbo ñaanalee mbokkum jullitam moom malaayika ma day wax ne amin yow nga am lu tol noona yiw bi mën a mën a for bàkkaar yi ànd ak bàkkaar li muy dansere lépp ci dundu jullit yi borom bi tabaraka wa taala wàcce na yiw bu bari woo xam ne warees na ci mën a jaar ba for bàkkaar yi bokk na ci yi for bàkkaar yi ay musiba ak i metit yoo xam ne day dal ab jullit fekk la yàlla jublu mooy far bàkkaaram yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadisu buxaari e, boo xam ne nee na maa yusibu al muslim min nasabin wala wasab ab jullit bi coono du ko dal wala wopp wala njàqare wala tiitaange wala lor ba ak dégg gu ko jam sax nee na lu dul kaffara allahu biha min xataayaahu lu dul yàlla faral ko ca ay bàkkaar kon li lay dal di la metti borom bi tabaraka wa ma nga la ciy faral ay bàkkaar bokk na ca yooye isbaaxul wudu jàpp njàpp moo xam ne mu jot la xumraan mi nekkoon surgam Osmaan ibn Affan radiallahu taala anhu nee na benn bis damaa ñëw di ko sottil muy jàpp rek di raxas raxas bu bu tor te fekk sedd baa ngi metti lool nee na ma ne ko doy na nag sedd bi metti na li nga jàpp wax dëgg yàlla sedd bi metti na nee na mu ne ma sottil ndax man maa dégg yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne laa yasbiu abdun alwudua illa gufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma taaxar dégg naa yonent bi mu ne ab jullit du jàpp njàpp mu mat sëkk lu dul yàlla jéggal na ko bàkkaaram yi jëkkee ak yu mujj nekk noonu juróomi julli yi abu hurayra radiallahu taala anhu ci xadis muttafaq alayhi yonent bi nee na su fekkoon ne daa am ak dex gu nekk ci sa bunt kër wala sa bunt néeg bis bu ne nga sangu ci juróomi yoon ndax danga nga dese bàkk da nga dese tilim ñu ne ko déedéet mu ne leen julli juróom noonu lay def nit ki ci ay bàkkaaram da koy raxas ala kulli xaal mbokk jullit yi e, bàkkaar dafa doon ci loo xam ne ab noonu la ci ab jullit boroom bi tabaraka wa taala ci mbaaxam ki mu bëgg dimbali dana ko dimbali ba far bàkkaaram dana ko di yàlla na yàlla dimbali bu wóoleel yi nga xam ne dañuy jàpp ndalal yooni far suñuy bàkkaar am na benn cheikh bu nekkoon misra moom laay mujjee e, qissaam ku ñuy wax cheikh Mouhamadul Ghazali ku bind mbind mu baree baree bari la ci ñi faatu bu yàggul la boo ko ndax man gis naa ko fekk naa ko sax këram ca Égypte Cheikh Mouhamadul Xasaali ab xatib la woon xutbakat boo xam ne jàkkaam jàkka ji ñuy tudde masjidu Amr ibn al Aas ci Misra moo fa nekkoon imaam di fa xutba li ko daan teewal ci mbooloo yàlla rek moo xam nañ toll waaw dafa jota kon ñu daaneel xisa bismillah kon benn bés Muhammadul Xasaali nee na góor gu ñuy wax Cheikh Ahmadul Xasan al Baquri kooku kuñ xam ci borom xam-xam yi la nee na dafa am benn bis mu yónnee woolu ma ndax moom booba mi ngi feebar ba paralysé nee na ma ne ah kooku lu may war a doyee nee na jóg wuy ji ko bi ma dikkee may bëgg a toog ci benn chaise nee na ma de mu ne ma demal toog ca bee nee ma toog ca booba nee na mu ne ma yow loo def Amr ibn al As nee na laaj bi jaaxaloo ma ne ko man ah defuma ko dara nee na mu ne ma oxu oh, kay am na lu xew mu ne ko man damaa tëdd gént am ñu fëgg sama bunt ñu ne ma alwaali saaxibu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amr ibn al as mooy nuyoo nee na ma ne bisimilah ubbi sama bunt amr ibn al as dugg ca melokaani na ma ko jànge woon ci téere yi nee na bi mu dikkee li tax ma ne la toogal ci banque bi banque bi nga toog fi la toogoon ci gént gi nee na mu ne ma li ma tax a ñëw mooy jéggal naa Muhammadul Ghazali ci ñaaw ñaawteef yi mu jëmale woon ci sama der ci sababus taxawaay bii nga xam ne am na ko ci jàkk ji nga xam ne man maa ko tabaxoon ci misra nee na daal di génn dem ci gént bi nee na ma yeewu dajeeg ñi nodd fajar nee na ma julli ba noppi tëdd géntaat gént gi ni ma ko génte woon mu del siwaat nee na ma ne kon am na lu xew léegi gént gaa ngi yow yaa xam noo koy firee am na loo def am redevance na xasaali fi mu toog mu jooy moom ci boppam mu ne jàkka ji bi ma fi door a tàmbali di julli xutba naa xutba yoo xam ne yépp ci Amr ibn As laa ko doon def ci wax ci moom lu ñaaw lu taxoon mooy nee na daal képp koo xam ne nettali nañ ma ne dafa noonoo woon ak Ali ibn Abi Talib mënu ma a bëgg ci sama xol loolu moo ko waraloon mu ne waaye sa gént gi tax na fii ma toog maa ngi tuub maa ngi jéggalu te ma yéene wax genn kàddu goo xam ne daa jëm ci kenn ku bokkoon ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lii nga ma wax nii nag tablewu ma ne ak moom mu jógoon ci ab xabroom dikk jàkkaarloog man wax ma ko xamee uma ko parce que du géntu caaxaan ndax yow yëgoo ne wax naa ci moom dara ñaareel bi nga gént ko ñaari yoon ñaari te man wax naa ci moom loolu kon loolu day firi lii lu wér la nee na moom ci ci loolu ci la tuube loolu moo tax ma wax ne mbokki jullit yi yal nañu yàlla jàppandalal sabab bi tuub ndax nit ki mën naa def loo xam ne jàpp na ne moom li muy def noona la xam nga ki doon wax ci saxaaba yi ba yóbbu ne saxaaba bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lay waxal saxaaba yi amu ci kenn ku suufe amuñ ko ñu wax war a ŋàññ waruñu am ku ñu wax jëmale ci moom wax ju ñaaw loola la doon ba jëfam ju baax jooju xëy na effacé na lële te bëgg nañ mu tuub ko suñu borom tabaraka wa taala jàppandal loolu jaarale ko ci nit koo xam ne xam nañ ne du nitu caaxaan kenn ku nekk xam na ne Ahmad Xasanul Baquri ci borom xam-xami misra yi nga xam ne wax dëgg yàlla ña ko tane foofa ci ak dundam néew woon na lool lool lool mu jaarale ko ci moom ba yàlla jéggal ko njéggal goo xam ne mel noonu la yàlla na yàlla jàppandal euh, lépp loo xam ne def na ko ci bàkkaar bu ñu yëg ak bu ñu yëgut suñu borom tabaraka wa taala jàppandal ak jéggal ko kon buntu tuub mbokki jullit ubbiku la képp koo xam na ak bàkkaaram lu a doon borom bi tabaraka wa taala dina ko may ak njéggal nasalullaha an yamunna alayna bi tawbatin nasuha wa an yaxtima lana bisalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dox seen diggante ba mu ci yebal ñaari soxnaam pour ñu dem seeni kër ba mbir yi dal muy laaj eh, yan jubbanti wala yan orientation lañ koy jox ci lu mel noonu eh, ñi koy xamal ne lislaam dafa am yoon yum teg yoo xam ne li muy bëgg mooy bépp projet boo dugg bu nekk bu fekkee am na ci yu lënt yoo xamut nga teel koo laaj bala ngaa tàbbi ci loo xam ne lu ñuy tere la waaye lislaam bëggewul ne dangay ñëw ba dugg ci giraawaale ba noppi ne nañ ma seetal nu ma ciy génne lislaam du ab pharmacie boo xam ne rek fu ñuy defe yu mel noonu la waaye dafa doon loo xam ne am nay matukaay yu muy jël yoo xam ne ku ci jaar doo tàbbi ci giraawaal yi te bañ a tàbbi ci giraawaal yi moo gën xam nooy def ba faju boo tàbbee ci giraawaal yi ndax boo ci tàbbiwut moom problème amut labat dafa am na ko lislaam tëre ak fu mu jaar nit ki gis na jigéen joo xam ne bëgg na ko takk comme soxna kooku jéego bu jëkk la da koo gis rek wala sax gisu ko mais wax nañ ko ko parasanté nañ ko doom doomi diw sangam ji day baax na jàpp nañ ne comme que da ngaa bëgg soxna war naa baax ci yow loolu ab jéego la jéego ñaareel bi mooy gise ay parents su fekkee wóor na ne yokkoo ko bëgg nga ko gisal ak ay parents nga ne ah seen doom ji kat man bëgg naa ko gis naa ko waaye bëgg naa ko su ko defee ñoom ñooy laaj ndaw soos yi ndax bëgg na wala déet waaye yow lislaam mayu la ngay dox dajeeg jigéen ne ko dama la bëgg wax ma ndax yow bëgg nga maam déet déedéet mën nga koo gis nag ci anam goo ko mën a gise gum mën a doon ba xam ne yow bëgg nga ko da ngeen a daje dañ la ko présenté nga gis photo fi béréb ak moom mën a demee noo xam ne gis nga ca moom la dagan a wala déggu nga ca moom la dagana dégg loola xëcc la nga bëgg ko mu doon soxna ci yow kooku sa jéego ñaareel mooy demal ci say parents jéego ñetteel ba mooy parents yi duñ ko laaj rek mu ne bëgg naa wala bëgguma waaye sañ nañ koo woo mu ñëw toog nga toog frère toog wala ku mën a toog ci ay mbokkam nga gis ko mu gis la maanaam nga gis ko mu gis li muy firi mooy la daganoon a gis moom ngay gis ci moom waxee su la day firi boppam wala da koy muriku wala def nenn li doon feeñ muy xar kanam ak i ténqam loolu nga gis loolu nga sañ a gis lu ci nekk am na lu mu la mën a tegtal moo tax sharia daganal loolu feeñ xar kanam bu feeñ am na lu muy tegtale ci jigéen ji ténq yu feeñ wax nañ ne am na lu muy tegtale lu ko wóotale ak bi nga xamee ne dafa daganoon mu génn ci mbedd mi feeñal xarkanam ak i tënkam lan la ku labat sañ foofu loo xam ne ka ca mbedd ma sañu ko mooy ka nekk ca ma di dox su dajew nag jigéen joo xam ne xarkanamam day feeñ mu xool yam ci moom loo xam ne xam na ne bu ko xoolaatee mën na ko indil fitna kooku dañ koo digal mu xabdul basar day dem mu gisam ki ñëw di labat nag ndaw si toog ci kanamam mu di ko xool foofu kenn waxu ko mu xabdul basar sañ naa xool bu baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi Mughirata ibn Shu'ba takkee soxna daf ko laaj ah dangaa ngaa takk soxna dégg naa ci ansaar yi mu ne ko waaw mu ne ah ñoom dégg naa seen xool ko bu baax a baax a baax de ndax loolu moo gën a yey ci loo xam ne dana leen jàppale bu ëllëgee seenub sëy mën a continuer maanaam bul yàkkamti kon sañ ngaa toog xool ko bu baax moom it mu xool la bu baax bu dee ci ay kàddu sañ nga ko déglu muy wax muy déglu mu lay déglu ngay wax ngeen jokk jolante ba xam fu ya tollu su ko defee yow it bëgg naa ko ja nga waxoon nga xoolaat su fekkee lu wéy la nga ne alhamdulilah kon kat man la ma waxoon juuma wala lañ ma waxoon ñooña kat juumuñu moom it mu ne bëgg naa ko wala mu ne sama bu ñu génnee danaa la wax suñ génnee mu wax papaam ne ko d'accord la wala d'accordu ma labat daal di tàmbali su loolu xasee tàmbali nag ba ñaar ñëpp ñi d'accord ne bëggante nañ foofu ab diggante lañ toll boo xam ne dañuy couper lépp nag lépp taxaw ba ba fas di am li feeg maye wuñ ko amatul leneen lu fa nekk téléphone yi ak message yi ak moo xam ay sms la moo xam ay facebook la moo xam tur ñu ko mën a jox yooyu ci yi indi fitna yi ci diggante bi ci la bokk yooyu nañ ko daw ndax day indi na yow mi toogoon ci sa kër say soxna ya nga yoroon wala sa soxna sa nga yoroon la mu xamal ci yow mooy diine ak njub loola it nga ko daan won ba mu yàgg mu xëy xëy yem ci sa téléphone ay njaaxum nekk ci yu mel noonu dañ naan noonu cin xamoon xamatuñ ko wala dañuy jàpp ne sax nun ndekete lam nu doon wax ba mu tàmbalee ba tey ndekete waa ji ab naafiq li muy wax dara du ci dëgg sa diggante ak ñoom da ngay rot ci seen bët maanaam fa nga tolloon bu fekkee sa poids dafa nekkoon mille da ngay wàcc ba tolloog dix wala lu ko yées loolu musiba la sa diggante ak sa njaboot gi nga xam ne yoroon nga leen di leen wan diine di leen wan njub nit day sàmm ab deram day sàmm boppam ci yu mel noonu du daaneel boppam ci kanam ña nga xam ne moo leen war a jubbanti ndax ki nga war a jubbanti jamono yu demee ba jàpp ne moo la gën rek sa kër tàmbali naa rëng-rëng kon loolu dañ koy daw su ko defee ginnaaw takk dagan na su boobaa suñ ko mayee soxnaam lu ko neex bu ëllëgee ay SMS nag ay yëfam ak yu mel noonu loolu seen yoon nekkatu ci suñ ko gisee ma ak ci sama jabara bu jeex amut wax kon loolu mooy doon li nga xam mooy li jaadu waaye nag noonu yi mu def itam njuumte la ndax dugg ci biir loolu ba def say njaaxum ba say jabar gis say SMS ak yooyu nga ne leen dellu leen seen kër ba mbir mi lijjanti ko itam du solution maanaam saafara su jur jàngoro lay doon kookee nga doon joxanteel SMS yi sa digganteeg moom deme na noo xam ne bis boo ñëwoon xelam du dal ci yow ndax wanoo ko diine wanoo ko njub doonagul woon sa jabar jàmbur la ci woon ci yow yéen a ngi doon waxante yoo xam ne ñaar ñu takkantewul sa ñu ñu koo wax su dikkoon ci sa kër ba toog di sëy day continuer di la contrôler ndax defe na ne na nga doon def moom yaa ngi continuer di ko def ñeneen kon mbir yi bu ko lislaam di tër dafa am tëriin moom def boo xam ne nit ki daa war a nekk ci këram doon kilifa nekk responsable ñu respecté ko mu respecté ñi mu yore mbir mu tegu ci yoon ci la sëy bi ñàkk rëng-rëng ci lay jub waaye suñu demee ba sikki sàkk tàmbalee am te ki nga takk ci loolu moom sikki sàkk lay judduwaale moom ci sëyam ginnaaw moom la judduwaale nag da koy continuer foo toll fu ne mi ngi xool ndax am na keneen koy defal na nga doon def ak moomam déet kon yooyu daal yu ma tawatandiku la li ñu koy laaj biir fi ñu toll nii daal mooy mu couper SMS yeeg caaxaan yooyu yëpp bu fekkee takkagul soxna si effacé ko ci téléphone ba mu set wécc mu waxaat ay soxnaam yu ñu dellusiwaat ci seen kër toog mu jéggalu leen wan leen ne moo leen tooñ seytaane ko mënoon def na loo xam ne duutu ca dellu wax ko ci seen këram tuub jéggalu bañ gëm ne li muy wax dëgg la su ko defee mbir moomu nag su ko dee continuer mu jaar ko rek ci yoon yi mu ko war a jaar ba keroog ñu koy may jabar li fekk may ñu ko jabar mu kuppe digganteem ak soxla sos allahu a'lam eh, ki nga ne dañ ko nattoo boo xam ne daf caa bëgg a génn bàkkaar dañ koy tuub moom rek mooy saafaraam amut leneen tuub nag ni ko ibnul qayim di waxee moo di annadamu ala ma waqaa fi lmaadi maanaam passé da cee am paaram réccu la weesu woon wal iqlaau fi lxaal amma waqaa maanaam li xew ci bakkaar boobu itam fii ñu toll jamono ji ñu toll nga summi ko booba kooku da ca am wa adamu al awdi ilayhi fi lmustaqbal kon ca kanam itam nga bañ a delloo ci ci loolu dogu ci ñett yooyu ñooy daje sa tuub nekk tawba nasu tawbatun nasuuxa tuub gi doon tuub gu sell al maadi wal xaadir wal ci nekk da ci am ab ciram la weesu te amoon tuub naa ko dootuma ci dellu fii ma toll nii gundiku naa ci loolu ba set ca wecc ci kanam it fasuma ci yéene dellu dogu ci ñett yooyu su demoon ba jëmmi jamono ñi nattuwaat ko ci bàkkaar boobu yi day delsiwaat ci looloo ci waaye jamono yi muy dogu na du ci dellu na doon dëgg ci moom su dee bàkkaar bu dëgër bopp nag comme ni mu ko waxee ci bàkkaar bii mu tudd ndax mu ngi laaj bàkkaar la wala du bàkkaar waaye bakkaar la mooy nit ki foyee boppam ba génne bànneex doxu bànneexam loolu dafa xaraam borom bi tabaraka wa taala ci suratul muminuun bi nga xamee ne mi ngi tagg al muminuun alladina hum fi salatihim xaashiuun dafa dem ba ne walladina hum li furujihim xaafiduun ñi nga xam ne dem nañ ba dañuy wattu seen pëy maanaam seen i seen i kanam illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin loolu loo xam ne dafa aju ci soxnaam wala koo xam ne kum moom la ci wàllu jibéer jamono yi loolu di am mu ne ndax kat sa soxna wala koo xam ne yaa ko moom kooku amut yaraange mu ne nag fa ibtaxa waraa dalik fa ulaayika humul aadun képp koo xam ne jéggi na yaar yooyu muy soxna ak milkul yamin muy koo xam ne yaa ko moom nee na ñooñe ñooy ñi jalgati frontière yàlla fa yàlla rëddoon ne bu leen ko weesu ñooñe jéggi nañ ko fa ulaayika humul aadun ki fooyee awraam ba ndoxam génn wala mu jëfandikoo benn jëfandikoo bu mu mën a doon ba ndoxam génn te fekkul ne ci lu dagan la ndax léegi léeg mu doon ci lu dagan ndax léeg-léeg ñi koy faj fekk ki koy faj dafa soxlaa am am ndoxam su boobaa mu jëfandikoo moyen ba génne ko loolu terewuñ waaye ki koy def ngir ngir jot bànneexam képp kooko bàkkaar la def boo xam ne bàkkaaru buñ xaraamal la ndax jalgati xotti frontière yàlla loolu mooy mooy mooy yàlla su ko defee loolu bàkkaar la bu ñu war a tuub waaye nag bàkkaar yi ñuy tuub tam da ciy am yu dëgër bopp comme ni mu ko waxee ndax dafa am lu ñu tudde idmaan kii naan sàngara léeg-léeg dem ba bàyyi sàngara lu jafe ci moom la kii tux léeg-léeg mu dem ba bàyyi tux kii kii fooyee bànnee xam dem ba bàyyi ko doon ci moom lu jafe waaye na xam ne lu mbir jafe am na ay matukaay yoo xam ne su ko nit ki jëlee mu saafaraw benn teewlu ragal sa borom tabaraka wa taala loolu mooy li ci jiitu jàng alquran xool li ci nekk déglu borom xam-xam yi fexe ba ragal yàlla dund ci sa xol koo koy tomb bi ci jëkk beneen bi ci des mooy wattandiku wéet su dee bàkkaar ñuy wax la wattandiku di wéet yow dong ndax loolu ci li koy indi ci la bokk ñett mooy nag jéem góor góorlu nag takki soxla su fekkee góor lañ ko nattoo wala jigéen su fekkee góor lañ ko dootoon ñu jéem a góorgóorlu liggéey takk soxna ndax kooku mooy solution bu mag bi nga xam ne su ko amee tuub gi dana ko daal di yomb waaye lu dut loolu mën naa euh, yàgg ci loolu su fekkee ne ragal yàlla ga nutut mu mën a bàyyi ko te xam nga ne mooy yàlla su yàggee day mujj euh, iraada niñ ko waxe woon jël décision day xaw a jafe ci ci moom hmm? voilà chaque euh, ñoo ngi koy ñaanal sunu borom tabaraka wa taala itam mu musal ko ci euh, loolu ndax nit ki day tollu jamono yoo xam ne itam tàngoor wi ànd ak moom moo ko yóbbu lu mel noonu xam nga ne xale bu góor ba ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ne dama bëggoon nga may ma rek nga permettre ma ma njaaloo donte benn yoon xam nga ñooñu loolu lu la ku toll fu métti métti mooy wax lu mel noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko waxee li mu ko wax convaincre ko ci wàllu xel ba mu xam ne njaaloo baaxut dafa teg loxoom ci dënnam ñaanal ko ne ko yàlla yàlla na nga ko jéggal bàkkaaram ndax li mu doon bëgg a def bàkkaar la waaye itam yàlla na nga dalal xelam ak xolam mu ne ba mu jógee ca loola amatul sax xalaat bu jëm ci jigéen kon noo ngi koy ñaanal sunu borom tabaraka wa taala mu soppi am xelam jëmee ko ci leneen ba ma mën a samp kër su ko defee mën a mucc ci xeeti bàkkaar yu mel noonu sallallahu alayhi wa sallam xadis bi mu jëfandikoo ne ma taraktu baadi nee na bi mu fi jógee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwu fi fitna boo xam ne moo gën a tar ci góor ñi fitna jigéen loolu lu wér lu dëggu la am maa ndax loolu nag day am contradiction ak fitna bi mu wax ci wàllu dajjal dajjal daa doon fitna boo xam ne ñëwagul waaye su ñëwee nag mooy féete ko fitna yëpp waaye nan jàpp ne li feeg muy ñëw fitna jigéen mooy fitna ji gën a tar ci fitna yi ba fitna yi dajjaal nag di ñëw ndax bu ñëwee fitna ju yóbbu iman la bu yóbbu ci euh, bàkkaar kese waaye day yóbbu iman di tàbbal nit ki ci kéefar kon jooju fitna moo yées ci fitna yi waaye nag ñu jàpp ne ni mu ko waxee ni mu tëdd ci xadis bi ku ko jàng xam ne li mu wax mooy ba mu génnee àdduna moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñim fi bàyyi ak lim leen bàyyeel ak la ne ci fitna la gën a tar ci fitna mooy fitna ji mën a dal góor te fekk ci wetu jigéen la ko jóge loolu kenn ku nekk xam na ko amma suñ demee rek ba mujjug jamono ñëw na nga xam ne yëf yaa ngay jeex nag ak yafay feeñ yooyu génnug jaal ca la bokk su boobaa mooy doon fitna ji nga xam ne moo gën a rëy kon contradiction amul ci diggante euh, ñaari xadis yi am na ki nga xam ne dafa njaaloo ak jigéen ci ay jamono jigéen de jekki ba mu yàgg mu indi doom nekkoon lii ca lu bon loolee ñu defoon ca la juddoo kooku li muy laaj foofu xanaa kay yan orientation lañ koy jox mooy tuub tomb bu njëkk mooy tuub bàkkaar bu mag boobu yi nga xam ne moom la def am maa nag ndax doom ja ca la jóge ak jógewu ca loola amut sens suñ demoon ba xam ne ca moom la jóge it maanaam jógewu ca maanaam juru ko ci sharia maanaam amul doom ci sharia kon itam su demoon ba nangu ne ca la jóge wala ñu jëfandikoo ADN wala jëfandikoo yi nga xam ne moom la jamono may ba xam ne kii kat deretam ci dereti kii la jóge du tax ñi mën a dogu ne kii doom la maanaam jaarul jaarul fa ko sharia doon doon jaar ci sharia ngir am doom jaarul foofa kon amul doom ci sharia doom ja jàmbur la ci moom su ko jëloon def ko tudde ko doom it su boobaa loola beneen bàkkaar bu tegu ci kaw bàkkaar bu njëkk ba la ndax li ñuy tudde adoptation ci l'islam dañ koo tere mooy taban nii jël koo jurul ne kii sama dooma loolu sharia da koy tere te juru ko ci sharia kon du doomam mën na ko jàppe nag ab jàmbur boo xam ne da koy dimbali comme ni mu dimbalee jàmbur yi euh, waaye ndaw doom jooji juddu santu ndeyam lañ koy jox waaye kenn du ko jox santu waa ji ñuy wax ne mooy baayam li loolu moo tax nga xam ne lu bon baaxut yoon yi sharia xotti ne nañ ko jaare fii jaare ko foofu moo baax moo amul mujj waaye mooy yàlla dafa ñaaw ak mujjam dafa ñaaw résultat yi ci juddoo yépp ay naqar ak metit la ndax waa ji mën naa dem ba bu gisee doom ji rek ñu xam ne moo ko jur ci lépp ci nuróoga ak ci lépp waaye sañuta wax ne kii sama doom la parce que jaarul wa atal buyuuta min abwaabiha sooy dugg ci kër da ngay jaar ca bunt ba waaye doo jaar ci fenêtre ba soo jaaree ci fenêtre ba soo ferenk laay woon ci biir kër gi ñu ne la nekkoo ci gi ndax jaaroo fa nga war a jaar wallahu taala alam am na problème nag ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi di yalwaan ndax dañ leen di sarax wala duñ leen sarax man jàpp naa ne dafa nekk problème boo xam ne fu ñuy jaar ba saafara ko loolu mooy xalaat bu mag bi la ñuy jaar ba fexe ba sunuy ndaw ñu nekk ci mbedd di yalwaan ndax benn phénomène la boo xam ne réew yi doya di képp te woyof néew doole ñàkk ay décision yu baax foofa nga koy fekk lu tax réew yi ci des du ñu yelwaan ay réew ngi fi yoo xam ne bu la neexee nga ne réew yi tubaab yi ak nangam ñooñu am la dañoo bari la dañoo def nangam déedéet waaye mbir yi la ay réew yi Afrique ngi fi yoo xam ne doo ma sa dox ba daje ku yelwaan demal Rwanda bu la neexee réew moo xam ne 94 lañ génne ci fitna joo xam ne daanaka dañoo xaw a dee ba jeex boo ko demee ci réew yi gën a organisé ci àdduna ci lañ ci lañ bokk dem nañ ba bokk ci ñoo xam ne ci wàllu environnement bu set ak réew mu set ñoom ci juróomi réew yi féete kaw ci àdduna ci lañ bokk te réewum Afrique la fii nu nekk mbuusi yi nga gis ni mbuusi toile ak imperméable yooyu dugal ko ci réew ba dañ ko interdit kenn sañu ko boo ko yoroon ci aéroport ba lañ koy nangoo dem naa fa dajeeg ay machaayix yoo xam ne benn carton lañ yor boo xam ne tàndarmaa ci nekk am benn scotch boo xam ne toile la ñu def ko ci ca aéroport ba lañ ko dindee ñu ne lii dañoo interdit mu dugg ci dëkk bi kon dem nañ ba àgg ci set dem ba àgg ci organisé wu waxuma la ngay daje doomu aadama ji yalwaan te pourtant fa nekk ñoo xam ne amuñu mais ay solution yoo xam ne ci la kon laaj na nu am ay décision yoo xam ne mooy tax yalwaan moomu nëbbu ndax benn phénomène la boo xam ne dëppoowul ak fi nga xam ne fa la ñu war a nekk lënkale koog daaray alxuraan wala nga lënkale koog lislaam loolu ak tooñ la nit ñaa ngi jàng alxuraan ci adduna bi di génne ay imaam yoo xam ne ñoo dàq jàng alxuraan ci àdduna te kenn jaaru ci ci doon doon doon yalwaan kon dafa doon responsabilité boo xam ne responsabilité askan wi la la ko tàmbalee autorités yi boroom xam-xam yi imaam yi boroom daara yi ñépp dañoo war a am décision ne loolu dañ ko war a xeex mu jóge fi niñ koy xeexee du caagi ni rek ay loi loi mënu ko waaye dafa laaj nag jëf jëf ki nga xam ne dafa jóge ci àll ba yorul daara yorul dara andi ay nit ñi yelwaan di ko wersi xaalis luye ay gone wala mu def leen lu mel noonu kooku dañ ko war a teg ci yoon yoon wu ferme mu leer nañ loolu moom suulu jeex ki nekk ci daaraam nga xam ne day jàngale alxuraan te ba àddunay baax sëriñ ba daa nekk ci àll ba ñu jël gone yi jox ko d'accord jamono yooyu parents yi amuñ xaalis bi ñuy jël di fay ndax xaalis amul waaye day yorub toolam bu ñu xëyee gone yi di ca liggéey bu ñu mu leen jàngal su ko defee lañu war a lekk ca tool ba lay jóge ñu di ca lekk kooku fay la woon waaye beneen anam la woon ci fay su ko jekkee ba mu yàgg tool ya naqari nawet bi amatul mu guddi ku ñëw ci àll bi ñëw ci dëkki taax yi ñi continuer di ko jox ay donga ña koy jox ay donga ñoo ko war a jox li ñuy dunde ndax yorul ay tool yu muy bay ci biir taax yi la muy dunde ñoo ko ko war a jox waruñu leen bàyyi ñi yalwaan loolu du yoon su fekkee nag dañoo dem ba toll ci jamono joo xam ne mbir yépp dañ koo organiser mu war a tegu ci yoon te loolu mooy li jaadu maanaam jaaduwul ku jóg ne damay ubbi daara rek ñu ne la ubbil daara te kenn xamul yow yow muy ubbi daara laaj loo jàng foo doon jànge alxuraan foo ko mokkale ku la ijaasaal ku la wax ne man ngaa jàngale alxuraan ban formation nga def ci jàngale jékki-jékki ubbi sa mbaar wala garage rek ne andi leen seen doom yi daañu andi doom yi déedéet dafa war boo xam ne ubbi daara ne waa koñ bi kat sama daaraa ngi ñu ne ñu ne ah ana chef de quartier bi mi ngi nii ñu ne seetal na waa ji ba xam li mu wax noonu laa am ñi woo ko mu ñëw chef de quartier ne ah nun kat am na association daara boo xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllu daara yi da ñëw indil ma si sa diplôme wala sa ijaasa wala nga wax ma foo doon jànge su yooyu yëpp soo ci yorul dara da ñëw toog fii ci kër gi mu woo kenn ca mbooloo moom mu ñëw nattu la ba xam yow mën ngaa jàngale alxuraanam déet suñ ko seetee sëriñ boobee bokk ca mbootaayub daara ya fédération ba wala lu demee noonu mu xool ko ne ah ay la yoon kii de wax dëgg yàlla mën naa jàngale alxuraan testé ko sooy jàngale nooy jàngale nooy yore gone yi doo leen di yare nooy def nangam nangam su fekkee yooyu am na mangi ñu ne mën naa jàngale alxuraan kat waaye laaj na nañu formé ko weer wala ñaari weer ñu yóbbu ko defal ko formation dikk ñu ne ko mën ngaa ubbi daara seet na ko gis ne waa ji bu jàngalee bari ñetti fan ñu jot ko fii kat mënut a jàngale alxuraan chef de quartier bi ne ko génnal jógal fii fii mënoo fee jàngale quartier génnal sama quartier dem seeti beneen beneen bu mu dem fekk fa organisation bu mel noonu du am fu dal ba di fa jàngale alxuraan ba ba ay gone kon loolu mooy yoon wi nga xam ne suñ fa tegee mbir yi état def li ko war ndax doom yi nga xam ne ñooy jànge ci daar yi ay doomi Sénégal lañ yoo xam ne ëllëgu Sénégal daa am ci ñoom yaakaar ñu war a participer ci jëmale réew mi kanam ñooñu ci boppam lañuy fere ci ñeneen ñi nga xam ne dañ leen ubbil ay écoles yu ñu leen tabaxal ñu nekk fa di fa jàng la Sénégal di séentu ci ñoom daa war a séentu ci ñii lu ko raw ñii di jàng alxuraan daa war a séentu ñoom lu ko war kon defee ci ñoom fukk war naa def ci ñii ñaar wala su defut loolu boog mu defal ñii fukk defal ñii fukk su loolu amul kon loolu ñàkk gee def ci li waral yalwaan mi di am ci la bokk sëriñ bi ñëw di jàngale te yeyoowut jàngale wala objectif am sax du mooy jàngale waaye day wut lu mu am kooku ci ñi waral yalwaan la ci la am kon ab problème la bu nekk société bi boo xam ne dañoo war a daje jàngat nan lañ war a mën a def ba mu jóge fi ndax lii sànk ci waxtu gone yi bari na te ak ndaw du yëfi caaxaan gone dañ ko teg ci yoon jàngal ko yar ko jubbanti ko mu baax ëllëg mu mën a doon ko am diine mën a tabax am réewam man a jub man a jubbanti su loolu amut kenn xamut ca kanam suñ réew mi fan la jëm kon loolu lu aaja bàyyi xel la ndax nag boobu bu ma ko xañee sarax bi du am lu mu yóbbu ci sëñ ba su ma ko ko saraxee day continuer di moom continuer yalwaan ak ñàkk continuer yalwaan loolu nekkul ci loxoom soo ko saraxee soo ko saraxut lépp ginnaaw waajaa nga fa te bis bu nekk mun demal yalwaan yi moom day continuer di yalwaan amaana yalwaanalul boppam sax maanaam su doon sagoom amaana du yalwaan waaye nag sañu koo bañ li nga ko jox xamal ne joxoo ko ko waaja nga ko jox te ama waaja amaana boo demee moom lim yeyoo woon tey mooy kaso wala ñu duma ko kon di ko joxub xaalis ñu di ko koo kooku moom du yoon lu dul nag yekk naa ba mu yàgg ma yor loo xam ne xam naa ne lii daara laa ko yónnee am na ñu ma xam ñoo xam ne xam naa ne dañuy jàngale alxuraan te lott nañ soxna nañ ku leen dimbali li ma yor bi ko sarfe mu doon ay weccate ki yëf yëfaat naa ko dajale ba weer wi dee ma jël ko ñëw ci daara ji ah man soo man kat dafa am lu ma doon dajale loo xam ne bëgguma koo sarax ñu ci mbedd mi waaye ci daara laa bëgg mu dem ci te xam naa ne yow sa daara ma ko tegee ci loxo dana dem ci daara kon defal ma ko ci daara yool ba nga doon am nga ko te encouragé waa joo xam ne daa nekk ci roq ñu koy dajaleel xaalis kenn xamul fu mu ko jëmale kon noonu la ñuy jëfandikoo foofu kon man la ma lay wax mooy bul ko sarax boo amee loo koy jox xam sëriñ ba muy dellu ci moom tam doon koo xam ne wóor na la ne kuy jàngale la demal ci sëriñ buy jàngale boo xam ne ay dongaam yalwaanuñ taxawaanuñ nga jox ko la nga yor mu dimbali ko ci daara mu man koo def ba keroog ñuy gis ay décision wala ay iraadaat yu dëgër yoo xam ne danañ mën a xeex lii nga xam ne ñoom la ñuy gis ci mbedd bi am na benn waay boo xam ne nee na ma ku bari ak xarañ bari tukki nee na ma réew mu ma dugg pour ma xam ndax développé na wala déet ci ñetti mbir laa koy xamee ñuy yalwaan ci mbedd mi su ma ko gisee damay xam ne mii réew développé donte ñu ngeeg alal ju dul jeex waaye damay xam ne moom nit ñi jëmuñu kanam ñaareel ba nee na ay dof yu dox ci mbedd mi dof yu def yaramu neen di dox ci mbedd kooku day wone nit ñi jëmuñu kanam bi ko ñetteel nag nee na mooy ma gis fii courant yi ne ci bitti ñoom itam nee na réew yi avancé yëpp seenu courant léegi ci suuf lay jaar waaye jaaratul ci kaw ñun nag defe naa yooyu yëpp bu ñu xoolee allahul mustaan defe naa ne yooyu yëpp daje na fi wallahu euh, alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad